télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu ñu ngi dellu si ak yéen ci édition spéciale euh, ni ñu leen ko waxee woon démb am gan koo xam ni télévision Futur Média dafay mbégte euh, di ko recevoir rawatina bu fekkente ni jamono am na fu mu toll euh, waxtaan ak moom ci xalaatam ak ci gis-gis ak ci ay solution yoo xam ne yaakaar nañu mu jóge ci moom loolu moo tax télévision Futur Média di ànd ak yéen jamono bu mu nekk di ci am mbégte. di ànd ak le grand serigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne tey moom mooy suñu gan moom lañu fa fas waxtaanal ci lu bari nag lu bari loo xam ni dafa concerner euh, collectivité bi nga xam ni euh, daanaka am na ci cër bu yaatu waaye itam réew mi ndax ku ne xam na ni euh, réew mi di Sénégal moom moo jiitu lépp réew mi yaakaar naa ni tey toll na foo xam ni képp koo xam ni boroom xalaat bu rafet nga war nañ ko taataan ngir xool naka la ñuy def ba xalaat boobu doon solution ci lii nga xam ne tey nekk nañu ci loolu bokk na ci li tax ñuy recevoir tey le grand serigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu euh, nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Papa Ngagne maa ngi lay nuyu di la ziar di la sant ci kaw nga jox ma occasion bii ma mën a toog. <coughs> Hmm. waxtaan ak réew mi waaye nga may ma nag ma nuyu réew mi ah réew mi nag su ma ko waxee mooy fu waay nekk tey ci senegal rek maa ngi lay nuyu te nuyoo bi dafay nuyoo bu spécial di indiwaat xel ni nuyoo salaam jàmm la kon maa ngi nuyu ñëpp réew mi nag dafa baaxu am ay kilifa. kilifa yooyu ñooy kilifa diine yi. te ñu bokk nag ci ñi ma yilif ñooñu maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant lim bi dafa may jafe. waaye képp koo xam ne kilifa diine nga yor baat ci réew mi maa ngi lay sant ndax xam naa li ñuy daj ci wàllu. def lu baax ak wax lu baax ak jëf lu baax pour réew mi. kon ñooñu Pape maa ngi leen di nuyu di leen sargal di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Pape Ibrahima sa génn bu mujj ñi ngi ko gis ci dialogue bi nga xam ne président de la république woote woon na ko ñu bëggoon xam lan moo tax woote boobu président woote nga demoon wuy ji. ah xam nga réew mi nag moo ñu moom ñun ñëpp. Mhm. président de la république dafay kenn gi jiitu ci réew mi ay senegale ñoo koy joŋante. dénk ko réew mi. mu woote lu mu ñu wooye kaa ñu waxtaane réew mi kooku nag bu xësee ba wax kenn waratul tànxam lu woote boobee looloo ma tax a wuy ji hmm. li ma tax a wuy ji it pap mooy réew mi toll na foo xam ni gor suñ ci woo wala jullit àqan ñun la woo nañ la ci réew mi kaay waxtaane ko njortu naa ni war naa faa teew hmm. loolu it moo fa yóbbu ndax du guleet mu woo ma ci loola hmm. kon maa ngi sant bi ma boolee ci ñu mu woo waaye li ma tax a dem mooy réew mi rek ma ñor comme réew mi la woote nag ay la yéwén teew naa ca d'accord teew nga ci lu bari euh, teew nga ci loo xam ni ñu bari dañ ko jàppee euh, ñii dañ ko jàppee ay ay complot politique mm-hmm. ñii dañ ko jàppee ay am na sax ñu koy wax ay tappale la mm-hmm. am na ñu bari ñoo xam ni jàppewuñu ko lu dul ay caaxaan mm-hmm. dañuy jàpp ni ay galgal politique la. Euh, loolu jombul yaa ngi koy dégg. nga teew ci loolu. est-ce que loolu itam du la entaché ci wàllu politique. Euh, ci leneen loo xam ni génn na fa ëllëg. waaw ñi koy wax nag wax dëgg yàlla dama leen koy nungul ndax réew mi moo toll foo xam ni pap kenn ku ci ne la ngay gis rek wala na nga gisee noonu ngay attee la nga xalaat. waaye man la ma dund ca loola laa la bëgg a nettali. mooy ci critique yi walla wala ci dialogue ci biir dialogue bi. ok ndax dialogue bi bu ñu ko jàppee tey d'ailleurs dama bëgg rek nga may ma ma gërëm Famara Ibrahima Sagna parce que bi ñu créé dialogue bi président njëkk a woote parce que dialogue bi continuité la du dialogue bu bees continuité la. non mais non non tuddewuñ ko continuité. waaw xaaral ma àggale rek Pape. waaw d' mais xam nga xam nga ki kii wax dialogue. nga baal ma waaw wax dialogue. Mhm. wax ñëw leen ñu waxtaan. Mhm. teg ay termes de référence. Mhm. bu doon dialogue bi continuité la duñ waxaat waxu ay ay TDR ay termes de référence. maanaam nañu waxaat leneen. te boo seetloo ponk ya ñu cay waxtaanee. wuute nag ponk ya ñu waxtaanee woon ci dialogue bële. kon dialogue bi am na wuute. Pape looloo tax ma bëgg nga déglu ma. waaw. man dialogue bu njëkk bi. bi nu wootee dem na ci ba ci neuf commission ak commission de synthèse man mii maa ngi bind woon ci commission bi ñuy wax ressources naturelles ca dialogue boobee ma ne nañu ubbi commission politique bi xanaa géej gi taxoon nga bokk ci ressources naturelles euh, ak o ak ak ak ak pétrole géej géej géej euh, nappkat yi doy na daal maanaam pour xam wax dëgg yàlla d'accord d'accord euh, fa ñu jëm ak ñun d'accord ok euh, yàlla def ma bindu ci commission boobee mais laata ma ciy bindu dama ne woon dama bëgg ngeen ubbi commission politique bi ndax commission politique bee lëmbee réew mi te kon fokk ñun ñi nga xam ni bokkuñu ci ñu mën a seede li ngeen di wax pour bu ëllëgee mm-hmm. réew mi xam ne ñun taxawaay bii la ñu taxawoon mm-hmm. c'est important ku jëkk politique gi ak parti au pouvoir. ñoom ñëpp lànk ni duñ ko ubbi duñ ko ubbi kenn ñun politiciens yi rek ñoo ci des ñu nungul leen ko waaye man dama am baat bu ma ca toftaloon nag dama leen waxoon ni leen comme tëj ngeen ko ba ñun amuñu ci xam-xam ëllëg ki si biir lépp lu ngeen fa déggoo man engagé wu ma ndax xaw ma ci dara te du ma politicien. te loolu yaa ngi ci ba tey. mosuma cee génn. non li ma bëgg a wax mooy ci dialogue bi itam. Hmm. buñ la ko ubbilul commission politique bi. waaw dara du la ci engagé. waaw xam nga li tax man la Pape continuité la. Mhm. dañu wax ci dialogue bi ni commission yi nga xamante ne bii dafa nekkoon ca dialogue bu njëkk ba te Covid bi tax ñu ñu ñu ajoon ko kenn ku ci ne fa nga nekkoon na nga fa delluwaat. ah d'accord man continuité la parce que. Mm, d'accord doon nañu bëgg tey. Mm-hmm. parce que dialogue bi bu fekkente ni bii nit bi benn ponk dong lañ ci jël muy ponk politique bi ci naxante ci réew mi la man ànduma ci loolu. Mm-hmm. am na lu gën a ñor Sénégalais yi. politique que politique bi. Mm-hmm. ci dialogue boobee am na commission sécurité. tey joxe naa tur pour mu dem toog ca commission sécurité boobee. muy kan. muy Mouhamed Isaaxa Diagne. joxe naa tulum tey. joxe naa keneen tulum pour mu dem ci commission culturelle bi ndax président bi dafa ma woo tey ni ma dama bëggoon muy ma le président Moustapha Niass maa ngi koy sant bu baax. ci euh, euh, euh, méthodologie bi mu jël. parce que moom ci wàllu boppam su fekkente ni bi moom lañ ko dénk. mu jël téléphone am woo ñi nga xam ne ñoom la war a woo laaj leen seen xalaat wax leen la ñu mën a def. <laughs> loolu dañ koy rafet la kon y a une concertation. mais li ma bëgg ñu xam ko mooy. dialogue bi dafa waxoon dafa liggéey lu yàgg. ci wàllu sécurité réew mi ci wàllu ressources naturelles yi ci wàllu euh, culture ci wàllu social ci wàllu ci wàllu kon commission yi bari na. léegi nag li tax nga ni ma dafa am ñu ko jàppee tappale. ñi jàppe ko politique nungul naa leen ko waaye man du loolu laa gis foofu dama gis ay sénégalais yu occupé de hautes fonctions dans ce pays des magistrats des anciens généraux commission bi ma yor tey un général moo nekk ca bopp le général euh, Amadou Fall yàlla na ko yàlla dolli xarañteem ca biir commission boobee Maodo Diop Decroix nga fa woon ca biir commission boobee Habib nga ca woon. mooy ci dialogue bële. ca dialogue bee. ci biir commission boobee Mansour si Djamil mii ma nga ca woon bari nañ ca te ñooñu mën a limal ay la yéwén du ñu ay lañuy ñuy tàppale ci mim réew dama bëgg nag sénégalais ci seeni wax ñu ñu woddante sutura ndax toog ci sa biir néeg wala toog ci téléphone wala nga toog ci plateau télé xas ku la neex ñu jubul day tappale day complot kooku nu mun nañ ko koo neex parce que loolu moom loolu la xam ku nekk li sa nekk li nekk ci sa ci sa àndaal rek nga yàkkale kon ñun du ñu nungu loolu kilifa yi fa nekk bari na waaw mais ci démocratie la ñu nekk aussi ku ne sañ am xalaatam ci lu ko neex waaw ñi nga xam ni ñoom bëgguñu ñëw ci dialogue bi uh-huh. li tax ñu ne bëgguñoo ñëw uh-huh. mooy dañoo jàpp ni uh-huh. euh, mais lii ñuy def nii ay caaxaan la déet Pape man waxuma ñooñu waaw waxuma ñi bëggul ñëw ok ñi bëggul ñëw dans une démocratie nungul naa leen ko option la nungul naa leen ko de mais dama wax ci am réew toujours avancée démocratique la dialogue dialogue avancée démocratique la dialogue boo mës a gis ci àdduna bu jeexee day am yokkute ci démocratie su fekkente ni bi dialogue boobee dialogue bu sincère la bu honnête très bien non no fi nga taxaw c'est important oui cest à loolu nga wax mooy dëgg c'est-à-dire bu fekkee dialogue bi dafa sincère mhm. te honnête mhm. avancée démocrate la mhm. euh, démocratie la loolu kenn werante wu ko mhm. mais ñi nga xam ne ñoo bokkul ci dialogue bi mhm. sincérité euh, euh, dialogue bi ci boppam ci lañ am doute ci lañ jàpp que ni lii kat am na luñ ci bëgg a pexe am na kuñ ci bëgg a galgal am na kuñ ci bëgg écarté loolu moo tax ñoom ñu jàpp ne mais lii leneen la dudul dialogue bu sincère xam xalaatam man du ma attewoo ci xalaat te gis man li may gis ak li ñuy ak ñooñu la ñuy xalaat bokkul ak li ma gis man. d'accord li ma gis mooy ay commission la yoo xam ne c'est des personnalités indépendantes. d'accord yoo xamante ni bii seen xam nga moo wax la benn affaire dialogue bu njëkk bi Famara Ibrahima Sagna xam nga ko doon vice présidente Aïda Mbodj. Mhm. kon mënuñu wax ni dialogue gu toppale la ca biir dialogue boobu Omar Sarr nga ca woon kon man. dama bëgg nit bala ngay wax firnde mais bu firnde amulee nga wax kooku da ngay wax nag ak sa teew bakkan pap te loolu mu ndax ko la d'accord dialogue bi dinañ ci dellu si waat incha euh, bu soobee yàlla mais ci dialogue bi <coughs> dañ ci gis benn image mm-hmm. bu bu bu jógloo tàkkiloo ñu bëri muy sa diggante ak Abdoulaye Diop Makhtar mm-hmm. euh, ci dialogue bi ngeen joxante loxo mm-hmm. loxo boobu kañ ngeen ko gëj a joxante mat na fukki at ma sant ko ci moom Ablaye Makhtar Diop xam nga Pape toog naa fii si sa plateau. man la sama kilifa la du ma ko tudd ci plateau ndax mënumaa wax ci moom du lu baax loolu laay réitéré xam nga nag lan laa ci toftal sant réew mépp xam tax ma sant leen. bari na ñoo xam ne xare woon na leen te dimension bi mu toll xam naa ne Ablaye natt ko woon man it natt ma ko woon waaye nag. la ma mës a wax rek laay wax sama digganteeg Ablaye du problème mu lébu problème bu mag ak rakk la ci biir néegu ma Marème Diop Makhtar mën nañoo xuloo mën nañoo juboo xuloo day am juboo day am la nga xamante ni bii moo taxoon loola bañ a am loola génn na ci man génn na ci moom kon jeex na tàkk. déet loolu des na ndax ñaari grand sëriñ yaa ngi fi ba tey. Mhm. te loolu mooy indi woon coow li aussi. déedéet du woon loolu. xam nga bul ñu ne du woon loolu. waaw li nga xam ni su amul woon coow du am ci seen diggante. mooy xëcco mhm. ñaari grand sëriñ. leeralal ma xam nga. Euh, nettali ko dafa xaw ñu. ah non mais loolu c' est important nag. Ah, ci laa jëm loolu c' est ah, important ah damay bañ nga bëgg damay bañ nga bañ nga ni ma nettali xuloo xuloo la après bëgg ko taxañ bëgg ko teg fële ah bala non ngay laax jaay laax lekk ba pare bala ngay liggéenti lan la nañ liggéenti li ba pare. ok d' accord. man xam nga. Mhm. damay nit koo xamante ne bii lépp lu may wax ñu mën naa koo wax. d' accord. yàlla dafa dogal Ablaye bi ñu toggee sama papa ci hôpital principal jaat di tegu. xam nga loolu ma lay netti lu lu sori ci man la foofu lay tàmbalee bi ma joxee kàddu man maa benn kilifa la ñu am mooy Ablaye Diop Matar mii mooy taaw ci néegu Marème Diop Matar man maa ni woon bi ma àndal yépp mooy sunu candidat hmm? waaw loolu waaye la indi loola mm-hmm. mooy moom dafa am ñoñ ñoo xam ni dañu woon mooy seen candidat te bëgguñu ñoo gis ak bët kon loolu buñ ko fi naree. teppi dafay gudd lool day gudd day gudd loolu day gudd d'accord na loolu day gudd. parce que comme yow neewoon nga mooy candidat te waxoon nga ko. non loolu loolu loolu c'est important. dañu am papam ak moom. d'accord muy Moustapha Diagne Yves mu ngi dund. Mhm. moo des ci suñu ay baay Yves mooy caatu Marème Diop Matar. Marème Diop Matar moo jur Doudou Diop Mousse muy taawu. néegu Marème Diop mu jur la mu jur Bassirou mu jur ma. Moustapha Diagne Yves moo ma jëkk a woo ne ma dama bëgg Serigne ndakaaru gii bu ci xalaat dara na ko jox Ablaye Matar. yàlla na ko il le mérite. coolo nag lu ko indi mooy ñi àndoon ak samay waajur istafam di ay borom ndom bi tànk ba ñu gisee la genn wet ga def jógewul ci Ablaye de jógewul ci Ablaye de dafa jógle ci kilifa goo xam ne jóge na àdduna dootuma tudd tur mu ne ah ñu ne ñun kat dañu bëggoon ñu xaar Basiiru ñeent fukki guddeem weesu comme ndakaaru fande na ñu daaj dajale ñëpp ñu ne déet ñoom duñu xaar loola mm-hmm. ñeneen ñu gis seen bopp d'accord ñu ne suñu sëñ Ndakaaroo dee xanaa quarante ci bu ñu ko mënul am kon mm-hmm. léegi ñoom la ñu fal après ñu lu leen neex def loolu mooy li am d'accord d' accord d' li nga wax mooy dëgg loolu moom xaju fi. joxante loxo bi day dem ba fan. wax na ma ak moom dem ci téléphone. d' accord. tey bi may ñëw nii dama koo woo pour tàgg ko jotuma ko ni ko maa ngi dem ci émission. Hmm. nanga ma ñaanal. Hmm. Pape Ngagne man du ma def lu ma gëmul. Hmm. du lu ma gëmul kon kon kon joxante loxo bi mën naa dem ba ci grand sëriñ bi nekk benn. bu la neexee wala bu ko neexee wala bu ma neexee. waaw ah dama lay laaj. waaw mais mën nañoo dem ba ci je suis prêt à être partout. non non dama ni xam nga da nga ni joxante joxante ngeen loxo. Mhm. mooy sa kilifa. Mhm. woo nga ko ni maa ngi lay tàggu pour dem ci émission. Mhm. kon tey joxe nga kilifteef gi yor na ko ndax mën nañoo dem ba ci grand sëriñ bi nekk benn tey muy Ablaye Makhtar Diop. c'est possible loolu laa lay laaj. Pape rien possible pour moi. tey bala may ñëw fii dama réunir sama staff. Dakar. ni leen waxtaan wi dañuy añandoo. ñu añandoo. waxoon naa laay ni ko dem tey ci alxames ji danaa dajale Dakar pour wax ak ñoom. képp ku mu am moom ci lébu gi wax naa ak moom te ñu ngi may woo téléphone. mooy penc yi fukk yeeg. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen d'accord. dégg nga ba ci wakaam ak ngor ak. non non dama c'est important. waaw waaw. ok. Mhm. jibis Jibril Sam. Mhm. wakaam ngor la dëkk. d'accord te ma nga foon. ca Ablaye la àndal. mais dama bëgg wax bi loolu amee. Mhm. tey bi ma defee réunion. de concertation. ni leen situation bi am situation nouvelle la dem leen ngeen analyser ko après ngeen ñëw ndax dama naw leen teg ñoom. ni leen nag il est temps que ñu dajale li ñu am ci lu baax waxtaane ko pour jëmale lébu gi kamal mhm. parce que nag xuloo bi yàgg na am na lu mu yàq lu bari mhm. Ablaay xam na valeur bi man xam naa valeur bi mais fi may mujjee mooy képp koo xam ne lébu nga te loolu metti woon la maa ngi la ciy baalu àq mhm. parce que bu ñu faalewul woon du leen metti lii daal Pape laa bëggoon wax ci loolu. d'accord di renouveler aussi. Euh, mmh. vraiment euh, un appel. Mmh. à toute la collectivité lébu. Ablaye su nekkoon grand sëñ de Dakar te duma dara lu muy dox maa koy dox lu mu wax maa koy wax ndax maay rakkam xam na samay compétence xam naa li mu man mhm. d'accord kon. d'accord d'accord li li nga wax moom dama koy nettali xuloo xuloo <laughs> du sax xuloo waaye boo ko bu tuddee mënul loo ko mën a tuddee rek nettali ko day indiwaat loolu te yaakaar naa ni am na leneen loo xam ni war nañ ci taxaw mais man pour man loolu c'était très important parce que loo xam ni daanaka Sénégal yëpp a jóg taxaw ñëpp tàccu xam nga lu ma la amul kenn lu ma la ci waxaat encore waaw a donné le temps du dialogue mooy mhm. man mii di wax ak yow imaginé wu ma woon ca bis booba ni danaa jox loxo Ablaye Matar. kon ba ngay ñëw loo naroon. dama ko romb loolu moo nekkoon ci man. xanaa kon képp koo xamante ne bii nit nga ci mim réew. war ngaa mën a baale. war nañoo mën a waxtaan ba jubóo ci leen. fu ñu ko defee nag encore du kenn moo ko lijjanti mbirum yàlla la ablaay waxuma waxuma ak moom. gisante wuñu rabbul kaaba amul kenn ku dox loolu kenn kenn ci àdduna doxu ko kon mbirum yàlla la nag mbirum yàlla nag su amee des koy nu man jullit laa nangu naa ne mbirum yàlla la sax yàlla sax. d'accord yàlla sax. d'accord am na ay points yu ma bëri yu ma bëgg ñu waxtaanee ko muy li nga xam ni xew na fii ci Ngor. Mhm. ci ay jafe-jafe. Mhm. ak li nga xam ni xew na fële ca ca Kayar. waaw mais dama bëggoon ñu njëkkee réew mi d'abord doog a dikk ci ci yooyu parce que loolu c'est très important <laughs> parce que li nga xam ni moo xew Kayar uh-huh. gis dégg nañ ci ah. ni waa Kayar ñoo tooñ loolu dinañ ci loolu dinañ ci ñëw <laughs> euh, mais dama bëggoon ñu bari mer c'est normal am na sax ñu la ci sànni <laughs> xeer ne jàppal sa njàmbur quoi bu dugg ci suñuy affaire am na ñoo xam ne ñoom nee nañ la sax yow du ma ah, bari ma doo dara waaw waaw du ma daalal ko du ma daalal ko d'accord alors mais dama bëgg bala ñuy ñëw ci loolu parce que loolu loolu moom lu lu particulier la <laughs> ci ci ci lébu gi la ñu ñëw ci réew mi d'abord tout à fait après nga xam ne loolu mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ci mën nañ ci ñëw <laughs> réew mi dañu dund euh, alxames ni tey tey la alxames alxames ji weesu waxtu wii réew mi dund na lu mës a mm-hmm. ci ay yàqu-yàqu mm-hmm. ci ay bakkan yu rot mm-hmm. ci fitna ci tiitaange loolu lan nga jàpp ni moo ko war a mën a indi ci réew ci ndakaaru d'abord mm-hmm. ci ndakaaru parce que li ci gën a metti ndakaaru la mm-hmm. lan moo ko war a indi mm-hmm. ci ndakaaru ah Pape yow xamoo ko indi dama man dama lay laaj de ah dama lay laaj ndax yow xamoo lu ko indi déedéet voilà man xaw ma lu ko indi ah Pape bi nag waxtaanu dëgg la déet mais xaw ma ko indi waxtaanu dëgg la mais xaw ma lu ko indi loolu waaw ñaari nit jote nañu dem ci yoon yoon atte leen bi leen yoon atte am ñu jóg ni atte boobee nunguwuñ ko Pape loolu mooy waxu dëgg nit day waxte yàlla tax loola nag li mu ci dëkk bi ñuy wax dakaar ak Ziguinchor maa ngi masawu waa Ziguinchor ndax kiñ ciy tudd seen doom la mën nañoo am naqar def lañu def waaye li egsi fii ci ndakaaru musu fee am te Pape li ma tax a ñëw fii loolu ci la ñun yàlla moo ñu dimbali bokk yàllaa ñu nattoo ñu nekk ñi nga xamante ni bi ñun fii la ñu fekk baax magu Lebu yi ni képp ku fi ñëw na nga am tedd nga ba fàtte fa nga jóge woon magu Lebu ni ku fi fanaan ñetti guddi nan la jàppe Lebu kon nit ku fi dugg rek war nga noo bàyyi xel am na ku ma ni loolu sax moo indi nday njaambur xaw na voilà nday njaambur maire voilà loolu mm. mooy waral ni mm-hmm. tey jii Lebu yëpp ci région de cap kontaanuñ ndax fitna bi am doy na waat doy waar goo xamante ni bii situé responsabilité yi nag dafa war dafa war pap politique walu taal am réew politik dafa war a defal am réew Ah, ndax ki koy sàkku xaaral ndax ki koy sàkku xëy na xëy na degré yi ñoo bokkul nopp moom ak borom politique yàgg naa taal ndakaaru waaw yàgg naa taal Sénégal voilà waaw waaw me dañuy bañ peut-être degré yi moom wute rek mais xeexoo ci moom wax dëgg yàlla xam nga ni yàgg na fi waaw voilà dama ci am mhm. ko d'accord voilà jaru ko de jaru ko bien sûr ndax bu fekkee réew mi dafa tàkk mhm. ki ko yore mhm. ci safaralay lay bàyyee réew mi ki jël réew mi ci doom la koy tout à fait kon politique jaru ko dëgg la mhm. li am nag am na waaye pap li xew mi ci réew mi lu jara a waxtaane la dëgg la moo tax ñu bëgg ci waxtaan ak yow wax dëgg yàlla man nag li ma gis ci olof xam lu ñu tuddee ay sàmba booy tubaab ni woyu ñeneen sax man ci sama appellation terrorisme laa koy tuddee ndax pap xam nga kàggu xam-xam ku ko tàcceem réew ni bëgg nga réew ma développé moom réew bëggoo mu développé amul ku ko rafetlu du ñuy fare ci opposition bi di ñu fare ci pouvoir bi kon loolu moom amul ku ko rafetlu kàggu xam-xam mhm. te Pape Université de Dakar nous demandons solennellement au président de la République si il a les moyens de délocaliser l'université Cheikh Anta Diop ailleurs parce que y a plus d'espace dafa xat te yàqu-yàqu yi bari te nag ñu jige centre bo ñu jige dëkk bi dëkk boo xam bu tàkkee lépp mën naa jëpp tàkkandoo dama dem Brazzaville cette université bu bees bi président bi defar Denis Sassou Nguesso da ngay génn Brazza di nga daw lu mat cinquante kilomètres ñu jox leen àll boo xamante ni bi lépp fa nekk parce que am njàng dafay ànd ak dal am njàng day ànd ak fu sell ay njàng dafay ànd ak foo xamante ni bi boo génnee doo gis ku la derange waaye Pape université bi li fi nekk nit ñi waxuñu ko de d'accord dañ fay jaay yamba xaaral xaaral xaaral pam bay ma tuuti bien sûr maa fay jaay yamba te nit ñi xam nañu dañ faraal daan jaay yamba mhm. moyen de sécurité yi nga xam ne moo fa war am matewul ndax koo wax mun la franchise universitaire mhm. Pape Sisti c'est une école internationale mhm. génne de de de de grands journalistes parmi vous ñu xëy na ko tappe taal man ja gëw ma ni ku nekk université am bac nekk fac de science wala nga nekk fac de lettre da nga osé def loolu loolu daf may jaaxal man. mais xam naa ne nag y a des intrus xam nga lu ko waral Pape université dafa yàgg a ñu dul étudiant te looloo war a dak ci université yi am sa benn frère bu dëkk Bambey ñëw di def café Touba wala muy def càq-càq scooter nga fat ko ci sa néeg di ko lalal matelas loolu am na. baa nga am sa doomu ndey. boo xamante ne bii dañ ko affecté Dakar amagul fu mu dëkk nga ne yaa koy faj ci université il faut que loolu ñu dindi ko ci université bi. Mm-hmm. université toll nañ foo xam ne su le plan technique waroon nañu man tey ku yorul badge électronique doo mën a sax ubbi bunt bi nekk ci couloir pour mën fa dugg kon lii rafetul jekkul te ku ko mën a def ak ku ko mën a def rek yoon war naa dal sa kaw. Mm-hmm. d'accord d'accord. Euh, wax nga beneen bi ma lancé ci appel nag. Mm-hmm. à toutes les bonnes volontés. parce que c'est des milliards et surtout le secteur privé ñëpp dugg ci seen loxo pour ñu dimbali université bi mu taxawaat ndax ñoom di mu waroon a ñoŋ yaakaar naa ba lu tollu nekk mais ku la dugg ci sa loxo parce que aujourd'hui il faut une loi rectificative des finances pour avoir d'autres ressources pour mu dugal ko ci biir université. d'accord université man jàpp naa ne li fa yàqu du xaalis a koy defar. xaalis li fa yàqu. oui li fa yàqu. du xaalis koy defar. li fa yàqu moom lu jéggi dayoo la. bu ñuy waxee ay archives. bu ñuy wax euh, euh, euh, bibliothèque. loolu ku ne xam na ni loolu du li fa yàqu. du xaalis moo koy defar li fa yàqu. mais Pape tey jii man des amis qui sont professeurs parce que man lépp lu may wax dama ci am firnde ñoom defoon nañu tey sur le sur le mois de juillet décembre dañuy niveler toutes les toutes les les, les branches de l'université pour l'université bi retard yi mu mosoon am yëpp ñu defaraat ko tey aujourd'hui loolu yàquwaat na. loolu mi ngi ci suuf daanu na loolu nag Pape lu ëpp la cim réew. d'accord d'accord junj nga cause bi. Hmm. junj nga cause bi. oui c'est vrai que soriwuloo ci. Hmm. Euh, parce que da nga jàpp ni euh, d'abord université bi nga wax ñu ñu jëlee ko fi mu nekk. waaw loolu wax nga ko. yàgg na mais mais xam nga loolu loolu. loolu université bi aussi euh, mën nañ wax ni dañ ko fekk si. waaw xëy dañ fekk si université bi. waaye ku ne xam na ni université bi bañ ko fay sos. Mhm. Euh, loolu yàgg na. boobu xëy na demeewul nii mu demee nii. Mhm. d'accord mais li nga wax euh, lu am solo la lu ñu war a bàyyi xel la parce que boo demee Ndar. Mhm. université Gaston Berger ku ne xam na gis na fañ ko yóbbu. exactement sori na trop fi nga xam ne mooy dëkk ba. yeneen université aussi la même chose. kon dafa jaadu rawatina dëkk bu mel nii ak ni mu demee. ñu jël disposition yu mel noonu c'est important. léegi li nga xam ni bëgg naa ñu ñu ñu ñu dikk si. muy junj nga cause bi. waaw euh, ci cause bi. conséquence bi. université moo ci gën a ndaw. waaw fukki nit ak nit ak benn dañ ci ñàkk fukki nit ak juróom benn. waaw dañ ci ñàkk seen bakkan. Pape loolu laay wax ni moom la nit ñi gis mais li tax man la c'est du terrorisme xam nga lii am na ci loo xam ne jàpp naa ne sax xëy na Ousmane Sonko maîtriser wu ko jàpp naa ne am na loo xam ne xew na. moom sax yëgu ko mbaa boog du lu mu digle ci sama rafet njort parce que nit du nit doo wax loo xamul mais daf rafet naa njort ni am na loolu loo xam ne xew na ci dëkk bi loo xam ne amaana moom loolu war ko mën a santaane gëwma ko ndax attaquer des cyber de l'État les sites de l'État ont été attaqués des compagnies téléphoniques ont mais Pape Ngagne bi loolu c'est des actes terroristes c'est du terrorisme donc bi état bi dooy wax doon acte bu yàgg ca assemblée nationale nañ nañ woote benn loi boo xamante ne bii pour terrorisme ko tax a jóg politiciens yëpp dañ ko rejeté mais tey c'est des actes de terrorisme loolu ku ko rafetlu tey li ma ci naqari mooy li am lépp génn gi amul benn homme politique bu am la courage avoir la fuite la l'honnêteté de dire que on l'a commandité ñëpp daw nañu kenn ñëpp parce que parce que loolu amul commanditaire waaw moo tax non xam xam parce que jëf ji amul commanditaire non xam nga tax man la man la non man loolu laa jàpp man voilà xam nga Pape waaw lu amul commanditaire loo xam ni lu jëf ju bon la te amul commanditaire ñëpp dañ ko war a condamner tout à fait demander à l'État d'être fort mm -hmm. ça mérite l'unité nationale mais Pape est-ce que dégg nga lu sëñ Muntaxa wax. déedéet. sëñ dafa woo Baye Fall yi. waaw loolu dégg naa ko. ma déglu Baye Fall yi. seen déclaration boobu jeex teg. loolu dégg naa ko. ñu jël sécurité Touba. Mhm. en jeu loolu ku mu tëjalu ci am réew doo nit. Mhm. kon am na lu bees lu dugg ci ci réew mi mais Pape ma profité ci nag sant. les forces de sécurité et de défense parce que li nit ñi dund bu ñu amuloon sago dégg mën naa bari gën a bari dégg mën naa gën a bari de ndax su fekkoonte ni bii dañoo jël seeni kanu bu ñu demee ba une portion de l'armée est sorti xam nga xam nga armée amul lacrymogène armée amul lacrymogène armée fetal la yore ça veut dire que la situation et grave su fekkente ni bii nag loolu ñun ñëpp ñoo ko bokk xam ni day fa nërmeel réew mi tey actuellement réew mépp ngi sa ngéem nous devons demander à toutes les forces vives de la nation d'appuyer l'État sénégalais à pouvoir remettre l'ordre d'accord alors wax nañu wax ci cause boobu laay ñëw ba léegi dafa am loo ci junju mhm. da nga wax ni ñaari sénégalais la yu am jafe-jafe yoon atte mhm. bi yoon atte mhm. Euh, li xew gis nañ ko. verdict lañ joxe rek li xew xew. waaw condamnation amagul. Uh-huh. boobaak léegi uh-huh. li concerné Ousmane Sonko mu nga cité kër góor gi toog. Uh-huh. condamnation amagul. lenn amagu ci. lan nga bëgg wax ci l'État doit rester fort ndax da nga bëgg wax ni nañu egg ba ci condamnation wala nañu egg ba ci leneen wala lan nga xalaat ci loolu. Uh, Pape situation bi dépassé na Ousmane Sonko Adji Sarr man je n'ai jamais accepté de débattre sur ce dossier. xam nga lu ko waral mandute ndax am na la loo xam ni jullit bu ko fekkewulee xamul la ca xew da cee war a mandu maintenant nag li tribunal yi atte nag ci loolu nga may laaj. waaw ah, ci loolu laa wax di condamnation bi laa wax. kon man du ma juge. Mhm. attew ma. Mhm. waaye juridiction yi nekk ci réew mii mhm. lu fi am ñoo ko atte ñaar nag moo am nungu ko ak bañ ko nungu soo ko nunguwulee yoon it jox na la yoon yow woo war a mën a jaar ba loola nga ni kët lii d'accorduma ko nii laa ko bëggee. mooy sa appel. waa ilaa nga ni ah li ñu àtte doy na ma nangu naa ko dégg naa tey ñu ni soxna ci sant Njaay Ndey Xadi def na appel dégg naa ñu ni xale bu jigéen bi def na appel mhm. waaw kon xanaa kon mbir mi jeexagul pap mhm. mbir mi jeexagul kon ñi nga xam ne ñooy àtte ci réew mi nag mënuñoo xëy benn bis jël magistrat yëpp sànni leen ci mbalit mi amul ci benn réew gisuma it ci benn réew ci àdduna fu ñu gërëmee les magistrats amul partout dans le monde les magistrats ont ont été te Pape bu ñu waxante dëgg magistrats yi ñu xarañ lañu ndax fii lañu ñu jànge am seen xam-xam ñu waat loo leen ñu waat dugal nañ ci ay juridiction ñoo war a atte Pape ku ñuy atte ku ne bu la atte bi neexulee danga naan ni atte mënuñu. d' accord yàgg na ci réew waaye foog ñoom ñu atte. d' accord accord am na ñu ci. xam nga lu tax beneen appel mën a am. Mhm. ndax ki nga ki la tey mën nga ko bañ a doyloo. yoon ni la ah comme kii safu tànnaatal nga tànnaat beneen bis ñu yóbbu la ci beneen juridiction nga atte nga ne fii doyuma ñu ni demaatal beneen juridiction. nga dem beneen juridiction kon loola il foog que nit ñu nangu ni il faut que am ñuy atte ci mim réew te ñuy atte nag ñoo ko jàng yow jàngoo ko man jànguma ko pap te nit ku nekk nag la mu jàng rek lay tari les inspecteurs de trésor loolu lañ jàng da nga fees dal ministère des finances man moom moom foo dugg kon un magistrat bu jàngee li réew mi nag war a sàmm mooy kenn ay kenn ci mim ci réew dañ koy ñogal te fu mu toll tembe kenn yi nekk ci réew mi buñ ko nërmeelee paap kenn du ci mucc yow doo ci mucc man du ma ci mucc. ni ko nërmeel du ci mucc. loolu dëgg la kon loola ëpp naa def ci mim réew. d' accord alors grand Serigne. Oui. la république dañ ko dégg mu am lu mu wax. Mhm. mu ne dafa mbay ay yoo xam ne bu naree taal réew mi dama ciy teg sama conco. Mhm. loolu dégg nga bi mu ko waxee wala déggoo ko. dégg naa ko. voilà ndax dossier bii. Mhm. dossier gën na koo taal réew mi. waaw mais xam nga Pape président de la république bu ñuy wax. dossier bu ma bu buy taalum réew dama ci teg coba conc kooku dossier bu mu maîtrise la en tant que état parce que y a des dossiers xam nga tey cour des comptes dafa jàpp ay nit ci Covid bi sénégalais yëpp waat ni cour des pour pourtant ci magistrat yi lañu bokk ñëpp d' accord nañu way ils ont fait bon travail dëgg la wala dëgg mais am na ci ñoo xam ne faute administrative lañ leen jàppe am na ci ñoo xam ne faute administrative lañ leen jàppe gis nga biñ ne Karim Wade dafa am détournement de deniers publics. ak CREI ak CREI ak CREI mhm. dama seeti président de la république man. ne ko monsieur le président naa ma ne ko man dama lay ñaan njekk ci lii. billaahi mu ne ma dinaa la ci may lu ma mayul kenn. ndax dinañ ko waxtaane waxtaan ko. ca dialogue ba. déedéet daf maa recevoir uniquement pour loolu. d'accord Khalifa Sall mii tey ba mu ko téyee ba tribunal ba jeexee dama ko seeti ni ko président mu naa ma ne ko Khalifa Ababacar Sall mii bokk boo na ko baal bu dem ndax sa prérogative la na nga def grâce bàyyi ko mu dem. billahi wal kitab waaye nag Pape xam nga tax ma waxuloon tey. xam tax ma ne jéego yooyu mën nañ ko xaar ci nga dem seet Ousmane Sonko dox ci. ci la bu ma ubbilee buntam man bañu wax ak kenn. mais est-ce que jéem nga ko. wax déet Pape xam nga. bu ma ubbilee ay buntam ndax jéem nga ko. Pape xaaral ma mhm. man réew mi laa fi nekkal. Mhm. réew mi laa fi nekkal na leer. waaw. nekkaloo fi président Macky Sall. déedéet ah, ah non non lay laaj. Macky mooy borom réew mi. waaw d'accord ci président de la république. mooy l'institution d'accord d'accord je respecte Macky Sall en tant qu'institution de la république. ok waaw. donc man dama ni. Mhm. loola def naa ko. waaw. kon man. te Pape billahi wal kitaab ko woon a wax ci kaw ci plateau. Ah, ci bismillah mais nit laa koo xamante ni man du def di wax. Mhm. dama bëgg li may def rek. ma di ko def te yàlla tax te yàlla am na pay yàlla sedda la ba ñu maa toog ak kenn kuy politique ci miim réew ndax fan yi maa ngi am ñu may seeti di wax ak ñoom guddi parce que yaa ngi may dégg maa man njabootu ñëpp laa waaw dakaaru lañ ma dénk képp ku fi yeewoo war na maa mën a wax ak yow ci kaw nga soxla ma mën na maa wax ak yow ci kaw nga yaakaar ne mën naa la dara waaye nag ndakaaru mayu ma may jóg di tëñëx tëñëxi fu ne dugg te ndakaaru waxuma loolu waaye li am solo mooy xam naa ni daal kii di boroom réew mi woote ñi kaa leen waxtaan waxtaan woowu daal yaakaar naa war naa mën a jur lu bari su fekkente ni bi ñi ko war a seq wuy si nañu si waxtaan woowu la loolu alors mbaa xam nga ni parti bi Ousmane Sonko jiite hmm. bari na say mbokki lébu yu ci nekk. waaw loolu du jeex du xaaj. bu baax ndax xam nga loolu bu baax. bu baax kon war loolu rek war ngaa xam ni may na la war na la may prérogative. Mhm. nga am jéego yoo ci def. waaw ci fitna gi nga xam ni. Mhm. Euh, laale na seen leader ak leneen. waaw waaw mais <clears throat> xam nga man damay kilifa guy moytu xam nga actuellement lu ci réew mi koo waxal mu weer la koo waxal mu enregistré waxal mu tëll la dëkk mhm. ba tax na man du ma jóg di te tëñëx dafa am benn xale bu ma woowee ca Allemagne ne ma dama bëgg nga jóg dox ci diggante Ousmane Sonko ak président de la République ma ne ko ci naka. Mhm. ci naka. mu ne la lan. mu ne ma waaw da war a seeti diw seeti diw seeti diw nga waxtaan ma ne ko ñooñu du ma leen seeti. Mhm. ndax ñooñu buñ ma soxlaa ñoo ma war a wër. xam nga pap man je dans la diplomatie coutumière depuis longtemps. Mmh. Mmh. Dans la sous-région. Je suis un membre consultatif du barreau pénal depuis 2019, coopté. Mmh. Parce que nous avons dit que c'est la diplomatie coutumière aujourd'hui qui doit prendre le relais face aux politiques. Mhm. ci laa bokk. yaa ngi dégg tey ay sénégalais daal dañu war a yóbbu réew mi CPI. mais Pape ça c'est un langage grave te ñi koy wax amuñu xam-xam. lu tax da nga yaakaar yi ñu fi gis ni mérité wul loolu. déet mais Pape xam nga CPI lu fa yóbbu nit toog rek si sa biir euh, permanence politique daal ni oui nous allons traduire le, le dossier à, à la CPI mais Pape kooku un intellectuel ne doit pas le dire CPI dafa am ay règles ay chartes yu fay yu yu yu fay dugal dossier benn bi c'est un état. Mm-hmm. bi ci topp. c'est le conseil de sécurité de l'ONU beneen bi c'est le procureur de la CPI avec un accord préalable de la chambre préliminaire kon taxaw final CPI c'est vouloir salir le Sénégal et c'est une honte pour tous les intellectuels de ce pays de vouloir mettre le Sénégal en face du monde pour dire que le Sénégal est zéro multiplié par zéro ñu ko Macky réew mi lañ ko def te ils sont minoritaires dans ce pays il faut que les politiciens sachent que ils sont minoritaires dans ce pays et ils nous dérangent tant qu'ils sont. d'accord alors ils sont minoritaires. oui te moo la teree nelaw. seen fitna moo la teree nelaw. moo teree nelaw réew mi voilà d'accord. réew mi donc minorité boobu. Mhm. minorité a respecter la. mais bien sûr. non minorité boobu du n'importe quelle minorité. oui xam nga minorité boo xam ne bu yëngatoo. dëkk bi lépp taxaw. kooku minorité bu ñu. war a jox mais Pape kaay ma wax beneen affaire <laughs> mais Pape yàq dafa yomb xale yi li bu ma am ci Guinée su ma leen woon génn leen ñu taal fii dañ koy taal balay ngoon ñu taal ko ba dafa yomb c'est des actes de lâcheté c'est des actes qui ne sont pas corrects dans une république organisée Pape fekk kër jàmbur taal ko. c'est pas de la politique c'est de la lâcheté fekk oto jàmbur xamoo fu mu ko jëndee da koo leb ca banque ba nga taal ko c'est de la lâcheté. c'est loolu romb na lâcheté. loolu criminel c'est des actes beneen bi ci topp mooy pas xaaral xaaral xaaral xaaral d'accord naa si jël ay banque cible ay banque daj leen ak càcc la mais Pape terre bi dégg nañ ci ay audio ay kilifa. ñoom laa du ñoom ñu naan terre bi nañ ko taal dañu nangam taal fayi am c'est vilain un homme responsable ne doit pas prendre des milliards les milliards des Sénégalais c'est l'argent des contribuables Macky sàll moom ko terre bii bi ñu ko defee ba léegi am naa nit ñoo xamante bi ñu ngi ci kër Mbay Fall Tëngéej ba jam ñaajo di ñibbi di ñibbi si di liggéey si fii seen oto sax dañ koy gaare jëlatuñu essence waaw ah, Pape kooku boo ko yàqee mag Sall da ci dugg Macky du dugg teer de man du ma dugg teer Pape nga ñoo dugg teer kon néew gi doole dañuy yàqal seen alal te alal jooju nag lu bari des ko leb kon suñuy doom suñuy set ñoo koy fayaat ci teewu bakkan rek ak reewande ak reewande aussi d' accord mais mais loolu loolu mën nga ko yow mën nga ko jàppee reewande am na ci acte yoo xam ni maa ak yow ñoo ci d' loolu moom ànd naa ci ak yow loolu c' est criminel mënu ma ko rafetlu mais am na ci acte yoo xam ni acte manifesté sa mécontentement gis ni am nga leader politique on l'accepte non am na leader politique on l'accepte boo gëm gis-gisam on l'accepte boo gëm xalaatam on ay pexe lañ koy pexeel pour génne ko ci li nga xam ni mooy présidentiel bi mhm. mais loolu te ñu gis ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni jàpp nañ ni foofu lañ leen jaarale mhm. mais ñooñu am nañu sañ ñu taxaw xeex loolu waaw Pape xam nga le combat politique dafa am ñaari type plusieurs types de combat ou un combat armé. waaw wala violent rek. non non parce que dans un combat politique où on on a des morts de d'une valeur de plus de de seize morts vingt morts comme ñoom am na ñu ma dégg sax ñu ne ëpp na loolu. waa mais Pape yaa a des fusils des gens tués mais yaa a un gendarme qui a été tué par balle est-ce que les forces de l'ordre sénégalaises mën nañ la wax ñoom ñaata la ñu gaañale duñ ko wax à cause de la république gis nga ci télévision. alkaati bu ñuy xëcc ay ay jigéen di ko xëcc ba mënatuñu mu am ngoonu ni bàyyi leen ma ma dee ñu bàyyi ko ñu di ko dóori birig di ko dóori birig yàlla def na sax deewu Pape Ngagne loolu rafet na ci réew. déedéet mais ça c'est pas de loolu loolu du contestation. loolu du loolu du du marche pacifique. loolu nit mënu ko rafet rafetlu. te képp koo xam ni yaa ngi ci réew mi dëggu sa biir nekk tëj tëdd sa njëgëñaay waat naa ci màggu rasulullah ni doo ko rafetlu boo dee nit ku baax wala nga jullit àqal parce que am na loo xam ne jullit moomu ko. waaw loolu lu ko fi war a indi nag. waaw mais Pape loolu lan moo ko fi war a indi loolu nag xam nga man saytu ko. waaw du sama compétence. xam nga luy sama compétence bu mbir amee ma taal sama oto ànd ak sama staff ñu xool li xew benn par benn benn par benn. te def nga ko loolu. waaw waaw. Hmm. billaahi wal kitaab ma wax la ne Pape ni la. nga xool li xew Ndakaaru dafa wax ni. Mhm. su lii xewee def leen lii. su ñaan jotee daf leen nangam su ngeen demee ba loolu te leen wut jëggaane leen ñaan su loolu yëpp nag téye génn leen wax moo ma tax a ñëw fii di wax Pape nga dëkk réew mi tey woo ci nit jox ko micro yomb la ah. mm-hmm. ñëppay daw ñëpp a ngi daw tali. loolu dëgg la man nag damay ñëw wax. ndax baat lañ ma jox te baat bi ndakaaroo ma ko jox waa ndakaaru li ñu ma sant boo ko loolu laay wax mooy waa ndakaaru sonn nañu jaaxle nañu am na lu metti réew mi sëngéem na te lu yàqu ndakaaru la yàqu d'accord daf ci am aspect boo xam ni ku ko wax hmm? ku wax lébu wax ko muy aspect mystique oui loolu c'est important ci tradition euh, lébu la bokk waaw parce que yaakaar naa ca seen maam sax hmm. loolu ci lañ leen xame woon hmm. lu ci bëri daanaka foofu euh, la la bàyyi ko ndax daf ci am loo xam ne da ngeen ko sàggane ci ndakaaru wala def ci am loo xam ni ni ngeen ko war a defee mhm. autorité yi wala nangam nangam daf dul yomb mhm. wala xëy na géej gi mhm. moo yombatul xëy na ci def yenn yi lan moo xew ba aspect boobu wala yéen a ngi koy def te yëguñu wala lan moo ci xew mosuñu cee jóg lan moo ci xew xam nga euh, euh, euh, Papa Ngagne baatin du lu ñuy wone mais wax naa du benn yoon du ñaari yoon ni képp koo xam ne yaa ngi fanaan ci ndakaaru di fi yeewoo te sa mébét yëpp taan ndakaaru la barke Mouhamad Ibn Abdallah doo am jàpp man maa la wax lii loolu du zaahir baatin la ak ku ma mën doon nag laa wax ak ku ma mën a doon rek loolu du sotti du sotti de dañuy jéem mais du sotti de ñu ngi fi nag ak ñoom waaye am nañ droit di leen ñu ngi leen di ñaan njëkk lii ngeen nekk balet ko am na ci droit loolu ñoom ñoom ñoo waroon a jóg nii lébuy kat ñu ngi leen di jéggul defuñu ko de ñu ñun ñooy jóg ne ñu ngi leen di jéggul Pape Ngagne kuréelu politique yi ñuy wax F24 ma gis fa ay kilifa yu baax yu ma naw ñu jox seen bopp ci réew mi réew mi nekk ci dëj ñu ne àjjuma dañoo bëgg a marché ay waay ngir yàlla ñu leen di ñaan teg leen marché boobu ci suuf ba ñu deele dëj ñaanal seeni niiw ndax paap kët Sénégal koo fi rey yaa koy jaale yaa koy dëgg. non ñoom rassemblement pacifique lañ ko tuddee. waaw non non mais pacifique. lañ ko tuddee waxuñu te ci rassemblement boobu ci la ñu fas yéene ñaanal seen i néew. waaw waaw parce que ah. rassemblement pacifique. xam nga euh, Pape. ah mais loolu aussi c'est important a gis nga Pape contextualisation le contexte actuel il faut contextualiser les situations. mais nag xam nga politique rapport de force la. waaw mais attends mais xam nga ni politique ñoom la def. ñoom defuñu li ngay wax. defuñu leneen politique la ñuy def te xam nga ni politique. nungul naa leen rapport de force te jàpp nañu ne rapport de force bi téye nañ ko ñoom. ndax jekk na ay politiciens daje ci ab mbedd ñu naan VDN fa la ñuy ñaane foofu ñaanukaay la Pape loolu du ñaanukaay loolu du ñaanukaay c'est pas sérieux li am solo mooy ñi deele ñu dem jaale ji bu leen jaxalee jaxal leen. bu ñu waree wàcce ay kaamil wàcce leen ay kaamil su neen war a defal ay sarax ñu defal leen ko waaye ñoom waroon nañu mën a am na ci sax ñoo xam ne seen mbokk jotaguñu seen niiw pour suul ko kon teel na dañ leen ñaan ngir yàlla waa Ndakaaru ñaan lañ leen loolu ngeen teg ko ci suuf ba jëmmi jamono beneen bi kët Pape moo wax la ko nag gis nga marchand ambulant yi dama ci recevoir lu mat cent ñu ne ma grand sëriñ ñun ay jaasi la ñuy wut dañuy liggéey ci tabar tabaski bi amuñu lu ñu dundee amuñu lu ñu moom te nit ñi tànqal nañu te ku laal suñu yëf dañ xeex yow mais ça c'est extrêmement gën leen lan man leen loolu ëpp naa def ah d'accord loolu ëpp naa def ci réew mais xam nga situation bi lan la jur Pape mhm. tous les Sénégalais sont en de s'auto-armer ci buñ la ko waxee ak buñ la ko waxul maa la ko wax de les Sénégalais sont de s'auto-armer parce que li nit ñi dul comprendre mooy nit koo xamante ni bii politico da ngaa jàng mokkal xëy nekk ci benn banque di liggéey ñu gaare sa gaare sa oto ci sa parking ñu xëy toj sa oto taal ko te fekk da nga ko leb Pape loolu neexul ci xol. loolu metti na loolu metti na te loolu mooy li fi am loolu mooy li fi am BRT yii ñuy wax ak nangam nangam yooyu ñu toj yëpp c'est des structures c'est des c'est des c'est des c'est des de l'État mais pour la population sénégalaise d'accord xaalis ba fa jógee gouvernement du Sénégal da koo da cee dugal alalam lépp dool sax ca pour koo fay loola dawagul sax nit ñi yàq ko mais Pape loolu du yëfu nit mm-hmm. léegi loolu nga wax du nit mm-hmm. ñu bari mën nañ ci ànd ak yow mais ndax jàpp nga di itam ñoom li ñuy faral di wax mm-hmm. lu toll daanaka ci juróomi téeméeri nit yu bokk ci opposition bi rawatina ñu far ak Ousmane Sonko ñu jàpp leen tëj ci kaso bi ñu ci bari ñu ne délit d'opinion la seen xalaat la ñu wax ci loolu laa bëgg a ñëw damay ñaan les juges son indépendant au Sénégal juge yi nga xam ni ñoo yor instruction yooyee te am lu xew lu bees lu ñëw ci réew mi mooy ay bracelet lañu di ko takkal ay nit ñi nga xamante ni bii ay journaliste lañu te ngeen bari ci lool ñu ma dégg ni ñu ngi ci loola ñu ngi leen di ñaan bu ñu leen mën a jox liberté provisoire jox leen ay éléments de repère ñu bàyyi ñu joxe seen soxla mais nag réew bu jàqee coow bari ay bari safara bari ñuy dee bari ku ñu gis ñuy lang daan la jàpp bu fekkente ni bii dañoo rafetul njot ci yow waaye jàpp moo gis ci ci bàyyi lay mujj nag pam parce que danañ jàpp nit dem ba ci biir am na sax kenn ku jigéen ku ma dégg ni jàpp nañ ko tey bàyyi dañ ko ña ngay bàyyi na ngay bàyyi waaw dama leen wax ni ñoom juge d'instruction yooyu nga xam ne ñoo nekk placé nit ñu sous mandat de dépôt képp koo xam ne am na possibilité il est régulièrement euh, euh, euh, euh comment dirais-je au Sénégal waa Dakar mais war nañ ko mën a wutal bracelet mu dem Pape surtout seen mbokk journaliste yooyu nga xam ne dëpp d'opinion nag waaye nag Pape lenn naa la ko waxal de yow mi da yaa ngi ci plateau bi waaye yaa ngi teg ni ngay wax journaliste tamit ak politicien il faut ñu jàpp ni wala syndicaliste ñoom ñoo gën ci réew mi ba lu leen neex def te kenn du leen ci yedd kenn du leen ci wax dara loolu tamit yéen seen corporation war ngeen waxtaan ci loolu mais man mii xëy naa bis ñu tuumal ma man lu sama yoon ci xalif général des Tidianes lu sama yoon ñu xëy bindal ma ni grand seigneur de Dakar dafa am par bu mu bu mu far ci xalif général bi ñuy waajur mais loolu xam nga Pape tooñ mënu ko te yàlla bi ñu tiim ma ca dara. samay safoo ma man leen déet man lii duma ko yóbbu tribunal ndax da nga koy may coow moom te du ko jariñ dara waaye man mi nga xam ne maa yor tur sama tur lay jël yóbbu fële ma am seen structure bu ñuy wax correct ma porte ko fa plainte ñu daan ko nit ñi it am nañu droit ñu tooñ ñu dem tribunal Pape Ngagne am na ñoo xam ne mënuñu loolu kon li ma bëgg mooy réew mi na dal parce que dal mooy jàmmu réew mi. d'accord je pense que li nga ci wax ci message euh, am naa njort ni président de la république dina ko dégg. Uh-huh. donte moom ci boppam ak euh, ci exécutif ñi ngi wax séparation uh-huh. donte séparation boobu ku ne xam na ni euh, séparation la bu ñuy bu ñuy wax rek ay la yéwén nag loolu mooy li nga xam ni moom mooy li am uh-huh. waaye jombul xëy na dina ci bàyyi xel bu ci bàyyiwul xel moom personnellement ñi nga xam ne ñooy juge yi nga xam ni wax nga leen ko xëy na dinañ xool loolu rawatina ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi mhm. ñooñ nga xam ni xamuñu lu dul yor seen plume mhm. wala yor seen kàddu ci télévision mhm. wax seen xalaat nag waaw li nga xam ne moom la ñu gëm ñu wax ci ñu wax ko ay la yéwén mais léegi loolu je pense que njort nañu ne mën nañ ci am euh, yaakaar ci loolu mais li ma bëgg ñu ñëw ci euh, euh, moom mooy génn nga dëgg la. mais jàppaloon itam cëru président de la république la woon fii réew mi toll itam mu wax ak askan wi. bokk naa ñu ko teel na. ah bon waaw xam nga lu tax. dafa ubbi dialogue bi li wax ci dialogue bi leer dafa ubbi dialogue bi ni kaa leen ñu waxtaan. kaa waxtaan. président mënul wax lu ëpp loolu. xam nga nit ñi bu ñu fooy réew mi. amuñu pour toog rek ku jóg ni way président waxal président waxal nee naa ko mais président mais président lu tax président di wax le ministre de l'intérieur s'est déclaré s'est exprimé il est habilité c'est sa situation c'est lui qui doit la situation nationale lan mooy problème bi wax na ko ñu gëm kooku ñàkk gëm ñun état de droit lañ nekk loolu ñu mën a gëm le premier ministre du Sénégal est là pourquoi le président va sortir par rapport à quoi par rapport à quoi Pape Ngagne pour faire une déclaration à la nation parce que Macky Sall après mu ne daal way lii am na fi li mu wax li mu war a wax lépp wax nañ ko xanaa ñooñu baat seen baat safu leen man Pape Ngagne xam nga lu ma bëgg il faut que réew mi nit ñi nungu kenn ku ci ne li nga moom ak li nga moomul. d'accord d'accord mais mais mais mais grand Serigne yow yaa mu wax léegi ni ma euh, bi xew-xew yi amee génn nga ak staff. waaw xool waaw ndegam yaa ko mën yaakaar loo ni président tam war na ko mën def. mais am na ñu ni def na ko am na ñu ni def na def ko médiatiser man su may jox guddi du ma ko médiatiser pap ndax xam ma fu ma saay saay di bette bu may dox guddi am na ñu bari tasanaan ñoom xam nañ ma du ma tudd seen tur mais pap man ndakaaru lañ ma dénk su amee jëye lii jëye la pap jëye jëye ju rëy ci mim réew mhm. bu ñu ko kenn xeebal mhm. te nag lu ñu war a dakkal la ndax Pape Ngagne man damay wàllu ji ci ay réew ba tey jii maa ngi lay waxal ni maa ngi dox ci réconciliation dans le bari le premier novembre c'est la journée de la chefferie malienne man na ko état malien dédié sa année maa demoon man kon li dox fii di ko dox gine di ko dox ci yeneen dëkk. d'accord wala si na ko mën a dox fii mais dama bëgg ñu xam ni. ay réew mu toj. réew mu daanu. réew mu ñu jàngeen yàlla nañ fa yàlla musal. te nag dooma sax ni mën nañ ko waaye lii ñuy fooye safara la woo xam ne dañ ko war a dakkal définitivement dans cette république là et aller la conquête démocratique du pouvoir parce que sénégalais yi nag. Ah ñoom politiciens yii ma lay wax Pape Ngagne. maa ngi lay yëgal benn affaire de sénégalais yi leen dépassé fop ndax sénégalais yaa ngi fal di follee sénégalais yaa ngi fal di follee Abdou Diouf sénégalais ko folli devant Ablaye Wade d'accord nañu dem Ablaye Wade sénégalais ko folli jox ko ma d'accord loolu li ngay wax nii moom la ñëpp yi wax mooy ñu dem ci conquête démocratique bu jaar yoon xam lan la ñuy wax ci loolu mm. mooy boo xam duñ ci jéem a génn kenn mm-hmm. waa Pape xam nga non loolu mooy wax ji waaw waaw Pape conquête démocratique nga wax noonu moom la ñëpp yi wax <laughs> loolu la ñu ne bu amee jàmm am voilà xam nga Pape xam nga man dépassé naa fu may naxe waaw xam nga fu nax ma mooy lan. Mhm. mooy état bi dafa am ñu mu bëgg a génne. Mhm. Mhm. man loolu naxaate laa ko tudde ci langage. l' état est incapable génne kenn ci élection. rey bu laaw jibo ko yàlla ko yàlla xare àjjana. dama toog di waxtaan ak moom mu ne ma Pape maanaam mu ne ma le président Léopold Sédar Senghor nous disait deux choses. pour être une autorité dans ce pays il faut éviter deux choses l'argent et la femme pap nit bu fekkente ni bii dangay xëccu am réew da ngay moytu di moytu di moytu ba àgg ca loola état dafa ma bëgg a génne état dafa bëgg a génn kii mais Macky Sall Macky Sall Idrissa Seck atte wuñ ko fii ndax jàpp ni ko dugal ci kaso bi atte wuñ ko bañ ko attee lu ñu wax dañ ni setal lañ ko mu set wecc mu dem élection est que tax na mu gañ a waat pourtant lépp lañ doon wax da koo da ko bëgg a def ko bëgg a éliminer ko bëgg a éliminer Abdoulaye Wade bi mu demee élection bu mu jëm bii ñu convoqué Macky Sall ca police centrale riir mi topp ko ñu naan daf ko bëgg a éliminer daf ko bëgg a éliminer demul élection ku gañe ku gañe du Macky Macky waay waaw xam nga lu def loolu nga Ngagne laaj ma lu ko def c'est le peuple les sénégalais sont plus mûrs que les politiciens waaye nag biñ ci rax fan yi moom ëpp naa def xaw ma fu mu jóge am na ñu naan ay luñ ci boole lu ci bokkul la mais li ma xam mooy réew mi am na ay actes de terrorisme yoo xamante ni bi c'est à arrêter définitivement par les forces de l'ordre et je demande solennellement au chef de l'État de renforcer les forces de l'ordre et de les féliciter et je m'associe à les avec toute la collectivité libre parce que ñun li ñu gis mosuñu koo gis d'accord euh, grand Serigne li nga li nga gis mosuloo ko gis waaye man jàpp naa ni warul a bett uh-huh. pourquoi warul a bett mooy dañu génn ci 2021 uh-huh. euh, ci la ñu njëkkoon woolu Ousmane Sonko ci yoon uh-huh. ci la fitna gi metti président de la république génn ne li fi am dootu fi amaat. Mhm. ñu dégg ñu wax ni li nga defoon boo ko defaatee ñu def lu raw li ñu defoon. Mhm. ñu wooluwaat Ousmane Sonko. Mhm. atte ko daan ko deux lu raw li amoon deux mille vingt et un amaat. waaw est-ce que tax na atte bi nul Pape. est que tax na atte bi nul. atte bi nulul de. Ah, ah, waaye xam nga xam nga atte bi leer man lan laa bëgg gis nga ah. tey jii. su fekkoonte ni bii man damay joxe conseil. ci ñi nga xam ni. ñoo bokk ci Pastef te maa ngi leen di soog a tudd nag wax dëgg yàlla su fekkoon conseil laa leen di jox c'est de mobiliser leurs troupes et de discuter su mm-hmm. sur quelle ligne aborder face à cette situation que vit leur leader loolu mooy objectivité d'accord parce que la politique c'est l'art de gérer le réel non mais boo waxee objectivité est-ce que loolu man mënu ma la ko reprocher parce que parti bu toll ni Pastef yow ak cër bi nga am nga ni yaa ngi leen di doog a tudd loolu maandute la wala lan lan moo tax waaw non xam nga xam nga maandute waaw Pape mhm. euh, man damay moytu di tooñ te nit ñi xamuñu la bon sens xam nga tey maa ngi lay wax benn affaire Pape Ngagne Mansour Sy Djamil Ahmed Khalifa Niass ñuy wax gëmm dóor bi ñuy wax gëmmal dóor kii ne xoolal dóor mais du cravage nekkuñu fi yàllaa fi nekk du loolu de. lan la dañ doon wax président ëmbal sa xol dëgëralal sa jëmm ba jël décision yu ngand ngand ngand yoo xam ne réew mi duñ ko fooge. bokk na ci waaw non mais non dama dama tax ñoom. noonu nañu waxee gëmal dóor. Mhm. mais gëmal dóor boobu tey amul lu ñu nekkul ci biir internet ñu ngi leen di saaga bay saaga ndey mais pap loolu laa lay wax ni loolu mooy de gi am ci réew mi. te yàlla xam na ni ñoom ba ñuy wax président de la république Ahmed Khalifa maag moom a dem ñoo am kenn doxul sama diggante maag moom wax président na jël tay xolam jël lépp dëxañ ko daal jël des décision fortes pour consolider la démocratie et la république du Sénégal mais tay lu ñu leen waxul ci internet bi lu ñu leen waxul Pape déggoo la ma la dama lay wax a jafe ci réew mi tey te nit ñi xam lu tax kenn ku ne yaa ngi waaf dugg sa suuf parce que bañ nga ku la saaga man nag bañu ma ku ma saaga bañu ma ku ma tam dëmm bañu ma ku ma ni grand sëriñ wasin na biig ma dara ndax ki lay saaga loolu la xam loolu la mën a joxe man jéggal naa képp ku ma saaga waaye li may indi fii daal jàmm la ak salaam pour réew mi dem ci jàmm ak salaam ku ko gëm yaa xam ku ko gëmul yaa xam waaye man loolu laay wax li may wax nii laa gëm d'accord Euh, grand Serigne. oui ci dialogue boobu. Mhm. gëmmal dóor boobu nga wax. Mhm. dafa am na ko gisee. Mhm. mais dafa am na ko ñeneen gisee. dama ko laaj. waaw da nga ko laaj ah, da nga ko laaj mu wax. waaw waaw d' accord léegi dafa am ñu jàpp ni dañu dañu dañu bëgg def loo euh, président de la république troisième candidature. waaw dañu bëgg par exemple tëj loo ko Ousmane Sonko. loolu moom tax ñu bari am ci lu leen. nax ñi xalaat ñooñu ragaluñu yàlla. di ko xalaat di wax rek kooku ragal ñooñu ragaluñu yàlla. Pape na nit ñi ànd ak sago te xam ne réew mi ay nit ñu bon dëkkuñu fi ay nit ñu bon dëkkuñu si réew mi de réew mi bari nañu baax de il faut ñu war malanteeg te joxante cër Pape dafa am ñaari cin bii togg domadaa bii togg ceebu jën ñaari cin yi boo leen yàkkee duñu benn mm-hmm. tey jii par troisième mandat dans un état de droit kenn ku ci ne am nga droit wax ci lu la neex mais du ñoom ñoo koy décider il faut que réew mi ñu ñëwaat ci république décider wuñu troisième mandat de amul tamit ci benn texte ci réew mi fu ñu ne bu élection présidentielle jotee des na huit mois président bi dafa war a génn waa ak réew mi dootuma dem élection Pape ñuy wax yëpp ci mandat bi bu leen wóoroon ni Macky Sall mënta nekk candidat duñ ci wax mais wóoru leen wóoru leen comme am na kuréel goo xam ne moom la ñu jagleel ci réew mi bu loola jotee képp koo xam ne bëgg nga cee bokk nga yóbbu ko fi sa këyit nañ ne ba mu àgg foofu ñuy soog a. lam waxoon na waaw kon kenn ku ne. la mu ca waxoon laa waaw moom laa yoo xam nga Pape. Mm-hmm. dégg naa fii ay leader politique ci bi ñuy def référendum bi ñu génn ci télé yi ni ku woote lii validé nga candidat Macky Sall réew maa ngi ni jomm ci ñooñu te ñoo ko waxoon tey Ousmane Sonko bokk na ci ñi ko wax kon bu ñu tolloo fii tey man doyloo ma sama xel yow doyloo woo sa xel kon kuréel gi ñuy wax conseil constitutionnel bi nga xam ni moom rek moo am martaba ak maqaama atte loolu nañ ko fa dugal te déglu leen bu ñu nee Macky du kandidaa bu fekkee waa këram dugal nañu kayit loolu wóolu ko ma su fekkee dugal nañ fu kayit ni mooy seen candidat buñ ko rejeté ñu ne rejeté nañ ko buñ fa dugalee kayit ni candidat gi walaabal nag na Sénégalais yëpp ànd dem élection bu leen makki Sall safulee ñu woote ko génne ko réew mi comme ni ñu ko defoon Abdoulaye Wade waa Pape loolu loolu gënul ay bakkan di que fi mu tollu tembe nag kenn ku ci ne yaay sa justice bopp te loolu bu amee ci réew Pape réew mi ci daanu la jëm. ndumbelaan. te lii loolu la ñuy wax ndumbelaan li ñu gis nii actuellement. Mhm. mooy ku jóg ni Macky Sall lii ku jóg ni ma démbali ku jóg ni ma démbalaa mais Pape ay la yéwén dans une démocratie civilisée laissons les institutions de la République fonctionner convenablement su les règles de l'art C'est ça la République et c'est ça la citoyenneté. Mais la citoyenneté n'est pas diw mii lii la diw mii du lii. Et encore, il y a un cadre qu'on vient de créer, le dialogue national. ñu am ci nag ñoom commission spéciale ñu tudd commission politique comme ñoom ñoo ko war a seq xam nga Pape moi je suis contre la politique de la chaise vide moi je suis pas d'accord quand je conseille Cellou Dalein Diallo dama ko waxoon ni ko Dalein mu ne ma ne ko il faut jamais accepter la chaise vide ne boycotte jamais les élections kon am na loo xamante ni bii opposition bu defee rupture ci benn benn buum ni moom bokkutul lépp lu ñuy décider ca kuréel googu lañ koy décider te buñ ko décider loolee bi il peut nag y avoir comme tu viens de dire des rapports de force mais les rapports de force quand ça dégénère l'État central arrive à prendre les responsabilités qu'il faut pour mettre de l'ordre je souhaite à tous les acteurs politiques du Sénégal de se retrouver autour d'une table et de se dire la vérité et encore dans leur commission politique ils n'ont qu'à discuter et dire ce qui se passe à l'intérieur mu bañ am tabou parce que oui. que président de la République sax moo boobu la utiliser amul amul tabou ba ci candidature am nañ ko fa waxtaane mhm. loolu dégg nañ ko fa waaye dégg nga tam ñuy wax lu jëm ci wàllu lu ci boole xalifa Sall boole ci Karim wàdd ci élection yi loolu yëpp. mais man Pape. ndax commission politique bi. waaw du mooy eh, commission centrale. dialogue bi yeneen commission yëpp ay commission périphérique. mais Pape ci dialogue bi président ngi toog dama ne. politiciens yi laata ñuy ñëw dañu jël en otage le dialogue national. parce que ñoom génne nañ seen i de référence dans la dans la presse nationale. képp ku naan kii di bokk kii dana bokk kii il faut ñu dindi lii kii foog ñu dindi daanam fii ko kon ñoom ils ont pris le pays en otage ma ne leen nag ñun du ñu nangu loolu ñun du ñu nangu loolu mais ñoom comme ñoom ñoo seq politique bi ñoom ñoo war a waxtaan mais Pape Ngagne na ñëpp waxtaan bu fekkee waxtaan wañu fa waxtaan jëmmoowul ak yoon ñu xamale ko kilifa yi bokk ci réew mi yëg ko dox lañ ca war a def ñu ko waree dox dox mais loolu mooy yoon waaye nag dafa am benn libu bu ñëw ci man bi ñuy waxtaan tey abaa may ñëw fii mu ne ma ñun de bis mu ne lu ñu indi rek ñu ne dañuy nax ñu delloo dañuy nax ñu delloo ba benn bis mu ne xale yi waaw bàyyi leen ñu nax ñu tey ndax ñu xam lii lan la waaw dialogue bi dañuy nax dañuy nax fii réew mi toll à huit mois des ngeen war a waxtaane parrainage lu am solo la parrainage bi. waaw parce que indi na ay mbir ay ay xëy na ci réew war nañ ko mën a dindi. d' accord war nañ ko mën a dindi. reporter élection yi report d' accord ma ci benn report d' élection nous sommes dans une démocratie respectons le calendrier républicain que ça vienne de pouvoir comme de l' opposition pourquoi pourquoi pourquoi reporter les élections y' a quoi y' a rien si les prérogatives régaliennes de l'État pour organiser ces élections sont largement euh, équilibrées mais pourquoi ne pas aller aux élections c'est même suspect pour le président la République c'est suspect d'accepter un report des élections et encore le mandat est donné par les Sénégalais pas eux ñoom politiciens yi joxe ñu mandat bi de mandat bi c'est les c'est les Sénégalais qui sont à Ndande qui sont à Fongolemi qui sont à Kédougou qui ont donné le mandat à cinq ans c'est fini le président n'a qu'à organiser des élections transparentes dans de très bonnes conditions et permettre à tous les acteurs qui veulent y participer de participer librement et le meilleur gagne. mais xam nga ni grand Serigne euh, junj naa ko léegi euh, bu ñu toppee actualité nationale bi dinañ ci yàgg trop mais xam naa ni ci conclusion bi dinañ ci ñëw mais dafa am ñaar yoo xam ne rek dama bëgg ñu ko mhm. muy li nga xam ni moo concerné Kayar ak Mboro mhm. Ngor Ngor non ak euh, non Kayar bëgg wax nga Kayar ak Mboro waaw ak Mboro voilà loolu laa bëgg après ma doog a ñëw ci fi nga xam ni mooy mooy fii ñu nekk ñun mhm. daanaka ci ci ci la bokk mais fi ma bëgg mooy da nga ci jël position waaw wax ni Kayar a tooñ. waaw ko ñëpp dégg ko. waaw te Kayar ñoom dañu ne kenn warul napp si ak si ak mbaal yi. ci seen géej. voilà cest à ci loo xam ni ñoom <laughs> ñoom duñu duñu autorité. mais lan moo tax nga war a taxaw loolu nga nga nga wax ko et puis Kayar ci boppam itam <laughs> mais indi fa fitna ba nit dee ci. voilà loolu yëpp am. voilà yow nga jël position taxaw. ci loo xam ni du tribunal du dara. nga jiw moo euh, tooñ nga àttee noonu. man yàlla daf ma bind <coughs> du ma naa fekk. mais bala may tàmbali waa Kayaar maa ngi leen di baalu àq bu ngeen jàppee ni tooñ la waaye tayit loolu laay waxaat ndax di nga wax lëf mu naqari ay nit te man sàkkuwuma luy naqari waa Kayaar awma ci intérêt mais Pape su dëgg jotee lëf boo koy wax te nga xam ko danga nga ciy wax loo xam yàlla def mu dimbali Pape j'ai trois ans et demi avec le ministre d'État Djiboka au ministère de l'économie maritime étant un de ses plus proches collaborateurs ma def tournée nationale ci tefes yëpp yàlla dimbali ma may lébu ñu joxoon ma wàllu yooyu le mhm. kon man waxantuuma lu ma xamul ëpp solo loolu Pape mais damay wax ci lii après ma ñëw ci la nga dimbali ma rek. bismillah euh, Papa Ngagne. tey on a recensé le parc gi ba gaal guy tëmb war nañ xam kan la benn ñaareel mooy dafa am lu ñuy wax permis ak licence permis da ngay fay pour mën a napp ñu jox la permis permis bi amul zone de. permis bi amul zone de te nag Pape soo bëggee dégg-dëgg gis nga napp ci Sénégal ba Kafountine su dundee waa Guet Ndara tefes yëpp ñoo fi ne ñoo nekk Mboro mhm. nekk Kayar nekk Dakar nekk euh, nekk nekk Yaraax nekk caaloy nekk Mbuur nekk Jifeer nekk ba Kafountine Guet Ndar la mhm. ba gànnaar mhm. waaye lan moo am dafa am filet bu ñuy wax monofilament Mhm. monofilament filet yoo xam ni nguuru Sénégal moo accepté mu dugg ci réew mi mhm. su ko nguur gi tere woon du fi dugg nguur gee ko bàyyi dugal ko ci réew mi ni ko indi ci réew mi jël fay seeni i mais wax nañu li mu yàq aussi ci jën yu sew yeeg yooyu wax nañ ko ba ñoom ñëpp ñu déggoo ci ci loolu ci loolu laa ah. jëm ci loolu laa mhm. kenn ku ne ak ni nga ko gisee waaw dama lay expliquer bi loolu amee ñu jaay ko xam nga pap lébu yi dañoo am jom da nga ci gis nit koo xam ne ndeyam mooy teggi tontine jëndal ko gaal jëndal ko file ne ko demal dawi dépense bu démb doon tey lépp sax war ta taxaw ci tefes naan gaal gi du fu nappe ndax jekkul rafetul alal yàlla Pape dafa am lu ñuy wax les ressource naturelles du pays. mais dafa laaj organisation aussi laa jëm organisation. Pape bu ma dagg rek dama la lay àggale. ci organisation boobu laa la bëggee indi. ci les ressources naturelles yii nga xam ne mooy géej gi bokk bokk la Pape dafa am ay kuréel yu ñuy tuddee ay CLPA. ñu nekk ci tefes ni sunu géej diw dafa nappee lii. moomuñu géej géej kenn moomu ko dangaa ngaa dëkk ci wetu tefes gi rek mais moomoo géej gi boo moomoon géej gi waa Kayaar bu ñu moomoon géej gi saxaar yi dugg ci géej gi ba àgg foofu toj Sénégal dellu dañ leen waroon a jàpp kon moom ñoom moomuñu géej gi Pape waa Guet Ndar dañuy jógee Guet Ndar dem Mbuur Selfa dem Mboro dem Mboro mhm. Pape nag filet yooyu suñu bëggee géej gi amul benn sénégalais bu am droit taxaw ci géej gi ni filet bii du fi dugg bii fi dugg loolu buñ ko ne buñ ko nungoo pap nekk ñu ci état de droit la réglementation de la mer dépend du ministère de l'économie maritime il y a ce qu'on la direction de la surveillance maritime qui est là pour surveiller la mer et la haute mer mais xam nga ni ñoom bu ko waxee am na fu ñu ko teg waaw mais pap dafa am débat dafa am débat gis nga dama lay ni get ndar laa wax ba Kafountine amul tefes gooy dox te doo ci dëgg sa ci dëgg sa tànk mais xam nga ñoom lu ñuy wax ñii dañ naan may yi dafa tuuti ba alvéoles sax da leen di jàppale. ñii ni bu desee ci géej gi lu mu romb da koy téye expression yooyu yëpp am nañu ko weddi comme débat national la benn citoyen war ko traité lii yoon mooy président de la république ak gouvernement am ni ah. comme filets yi dafa indi coow si mim réew leen ngeen wutal ma filets yu màngoog yu méngoo ak seen i gis-gis jël acteur de pêche dajale leen yóbbu leen en mission ñu xooli filets yoo xam ne méngoo na ak jamono ñu ni kon filets yi lañ bëgg état bi indi ko subventionné ko jox leen ko bu boobaa mën na ni kii kat boo nappee fii ma jàppale yóbbu ci kaso waaye ay filets yoo xam ne yow yaa ko jaay nit ñu jënd ko nga bis ni ki tey def naa benn arrêté ku ko yorati rek jàpp naa mais loolu Pape loolu c'est pas un état de droit. loolu laa wax mais xam nga ni. Mhm. Euh, su ma juumul am na en 2005. oui fitna googu. 2019. Mhm. 2023. Mhm. kon solution amagu ci. waaw solution yii ñu dégg gum ñu gis par exemple ñoom jaraaf Youssou Ndoye ak ñoom Paal ak ñeneen ak ñeneen dafa def ci ak gouverneur bi. ñooñu xam nga ni loolu du solution. te li nga xam ni dégg nañ ko li nga xam ni dégg nañ ko mooy. waa Mboro pare guñu. waaw nañ dinañ fayu. waaw ci li nga xam ni moom moo fa xew. mais Pape est-ce que xam nga quest tëmbalee Sénégal. préparé pour ñëw fayu si xeex si. yaa ngi may dégg. man maa woote les autorité c' est les forces spéciales qui ont bloqué les en pleine mer. Pape xeex nañ ko teg ci suuf. nañ bàyyi xeex. nañ bàyyi xeex. merci d' accord mais jàpp nga ni euh, loolu dina ko dina nekk solution. mais solution bu mën a nekk la parce que man wax naa ko président nee naa ko lii boo ko réglé wul di nga xuloog. képp koo xam ne yaa ngi ci géej gi di di jëfe napp waaw waaw am na solution yoo xam ne dama ni mm. xam li ma bëgg wax mooy yow boo jëlee position waaw est-ce que dina yomb nga indi solution waaw déet man xam nga solution bi may indi waaw non boo jëlee position la <laughs> est dina yomb nga indi solution <laughs> waaw Pape xam nga solution bi du Kayar ak Gendar c'est tout le Sénégal ah no li concerné Kayar laa wax déedéet déet Pape ak ak xam ñoom dañoo bokk ci Mboro rek jàppale leen waaw déedéet déedéet nga Pape Mboro du tefes <laughs> ok Mboro Kajoor la bokk gis nga géej googu suñ ko ñemee waa gën dara ko ñeme maa la wax lii tey ku fa tëmb dee boo defu leen dànk waa gën dara ko sànc jibakaa fa def quai de pêche ba bokk naa ci ñu ko inauguré mais Mboro du ñu dëkku napp waaw léegi léegi am na lu ñu waxoon ci solution mooy def ay genre barge yooyu nga xam ni moo koy séparé waaw est-ce que loolu du solution waaw mais Pape xam nga xam nga aussi Pape il faut qu'on aille de solution solutions globales du benn nit rek wala benn tefes rek wala benn dëkk rek nañuy organiser lii déedéet Pape xam lu ñu war a wax comme na monofilament indi na coow lu toll nii ci mim réew. nañu ko fi jëlee. d'accord indi yeneen i filets yoo xam ni pêcheurs yi seen bopp nangul nañu seen bopp ni wax dëgg yàlla filets yi baax na. ñun ñëpp d'accord nañ ci nungu nañ ko ñu daal di koy def une substitution. d'accord alors grand Serigne xam nga ni nit faatu na fa. waaw mooy li nga xam ni moo xew fii tam. ngor ngi koy jàll ñëpp mooy li nga xam ni moo xew tam ngor. Mhm. Euh, ci euh, jafe-jafe yi dox ci diggante. mën nañ wax état bi la mhm. ak pouvoir euh, bi nga xam ni moom mooy local bi mhm. euh, ci wàllu terrain bi ak gendarmerie bi mhm. euh, loolu lan moo ci taxawaayu grand serigne lan la ci def parce que coow yëpp dégg nañ ko ah mais vraiment dégguñu la ci ci loo xam ni lu lu officiel la voilà pap ma bala may àgg déggu si ngor nga baal ma parce que dafay xaw a gudd nga may ma rek ma wax encore li ñu war a def tey actuellement pap ci géej gi c'est culture marine Pape tout le pétrole et le gaz se trouvent en mer gis nga état du Sénégal na na na anticiper on va vers des problèmes majeurs. dëgg la qui dépassent ces histoires de monofilament. dëgg la et de et de et de dëgg la kay. mooy mooy du ñu du ñu jël pétrole bi bàyyi géej gi bàyyi napp bi rek. ñi nga xamante ni bii tey aujourd'hui mhm. c'est les les grandes firmes. qui sont à la qui ont la gestion de l'exploitation du gaz da ngay wax wax ci olof. waaw euh, li nga xamante ni bii tey mooy gaz bi nekk ci biir géej gi. pétrole bi nekk ci biir géej gi dana toll jamono joo xamante ne bii nappkat yi seen problème dana gën a yokk kon li ñuy ñaan président de la république mooy mu dëgëral aquaculture marine amu fi mel ni ñu ko créé man dama ci dem mission Égypte Pape Égypte boo demee tey ci seeni toolu jën Égypte day ex day importer jën kon Sénégal mën na loolu président de la république ñu ngi koy ñaan géej gi problème yi à part monofilament mais l'exploitation du pétrole et du gaz en mer war nañu mën ay am ay substitution ay substitution yoo xamante ni bii tey <coughs> géej gi foofu la jëm nit ñi def ay toolu géej nit ñi ñu dee ci géej gi duñu gëteeti mm-hmm. dootu soxla gilet par euh, euh, gilet de sauvetage mm-hmm. dootu nekk di xuloo monofilament mm-hmm. loolu état bi daf ko war a jël au sérieux au sérieux ça doit être un des points forts aujourd'hui d'ailleurs même dans le dialogue ah d'accord loolu c'est important. ah oui moo tax nga nekk ci commission bi nga nekk. absolument pour mën ko défendre pour défendre loolu. d'accord pour question bi nga xam ni wax naa la ko concernant. Ngor waaw. Pape euh, maa ngi sant waa Ngor. gépp xale mag ndaw góor ak jigéen xam nga Pape kilifa buy dox day moyu média. ndax média day jay nit média day nax nit loolu dëgg la te loolu loolu dëgg la man gënalu ma mhm. loolu moom am na mhm. Pape man bi may dugg Ngor su korite la bi su it bu ma jógee jëwee El Hadji julli ba pare damay dem armée les ziar sama waajur fekk wax naa ak waa Ngor ñu nañu jàpp ban heure laa fa mën a ñëw ba ma duggoon sama xëbru baay bay ñaan ba pare lañ ma woo ne ma waa Ngor a ngi toog di leen xaar fu ma leen fekk kër jaraaf baabu sàmm ñëpp ngi toog ma ne leen li may wax bu ko kenn filmé bu ma kenn enristre ndax ñunu neen rek suñu biiru bokk mhm. baat ba ma leen wax ñëpp a toog ma ne leen lii ngeen di xëccoo moomu leen ko hmm? waaw falaa nekk ba 17 heures ma ne leen nag dama bàyyi dama bëgg ngeen may ma ma exposé après le débat est ouvert ndax yaa ngi may dégg bien sûr <laughs> li nga may dégg li dinaa la déglu kay parce que li nga ma wax nii moom lu lu ma xalaatul woon la jalaafa ngi toog. que ñoom ñi ngi xëccoo lu ñu moomul. jalaafa ngi toog. bàyyi bakkan des. maire a ngi toog. Mhm. ma ne leen titre bii historique bi si Ahmed Tidiane Sy Maktoum moo ko moomoon mhm. état du Sénégal dédommagé ko jël titre bi mhm. objet bi. moo doon l'élargissement de la route de l'aéroport mhm. paam ndax yaa ngi may dégg si maa lay dégg bu baax <coughs> bi loolu amee état bi titré ko moomal ko boppam maire bi fi nekkoon ñu koy wax atti Gueye mu ngi ci jotaay bi ma ne ko Ati yow laa jàpp seede ndax yow yaa ma seet si bis ni ma grand sëñ parking bii dañu bëgg ñu def fi Carrefour maire bu jëkk bi laa wax mu waxtaan ak Carrefour Carrefour booba jaraaf Saliou Samb moo fi nekk Carrefour nii. mooy grande surface. waaw mhm. Carrefour nii. Mhm. dañu bëgg personnel bi yëpp dëkk Ngor beneen bi mu am benn alal joo xam ne dañ koy verser dëkk bi ak bu jot beneen alal bi dañ koy verser maire bi ak bu jot maire bi ñëw seet si ma ne ma dama bëgg nga dimbali ma ci loolu ma ànd ak moom seeti Mohamed Boun Abdallah Dionne premier ministre ca jamono jooja mu ne ma ah li tax maire bi nag def ma loolu laa lay wax ndax ba mu nekkee maire dama ne ko demal nga wax ak nguur gi pour nga mën a jariñ ngor munoo nekk maire opposant ñëw te doo jariñ mm-hmm. nguur gi doo mm-hmm. jariñ ñëw ma ne ko loolu man ànduma ci mm-hmm. mu ne ma kon waxal Macky Sall mu recevoir ko lu ci jëkk mu ne ma nañ ma wutal fi ma dugal ñu fal ko bi ci topp mu ne ma ngoro ma ñor nañ ma wutal lycée nañ ma defaral lii lycée bi jox nañ ko terrain bi foofu laa jëm Pape bi loolu amee ñu dem ba ca biir Auchan am ñeneen ñu ngemb Auchan pour foofa mu laxasoo laata ñu koy laqat ci ñoom ñu dem élection moom mu ñàkk maire bi lépp doxee fa tàbbi géej lii sa bi ci ter sa émission bi laa taxawoon laaj ni président na dimbali waa Ngor ndax waa Ngor dëbbu li ñuy laaj lycée la président daggal leen 5000 mètres carrés ba mu leen daggalee 5000 mètres carrés yooyee l' administration domaniale n'a pas respecté les directives du chef de l' ñu daggal leen 2000 daggaat 1800 ya ca booru Angal Péréné maire bi Atigé ca jamono yooyu moom du jël loolu ñu nekk ci statu quo ñu gis fa beneen terrain boo xam ne deux hectares la mais deux hectares yooyu la c'est des titres fonciers privés Amadou Ba moo doon ministre des finance ca jamono jooja ba ñu demee seeti ko mu ne dana ca jéem dara waaye mujj ko rek donc au niveau du ministère de l'éducation nationale c'était budgétisé pour lycée am ngol mais manque d'espace boobu tax loolu ça a été un rejet loolu mooy situation suuf soosa bi ñu ñëwee nag bii yoon di ci xeex ba ma wax leen lii am na ñoo ca mere parce que man dëgg laay wax man leen nag xeex bi bari na ñi gaañu bari na ndax da ngeen di continuer ci xeex bi nii ba ñëpp dugg ci kaso bi wala dañ koy teg ci suuf waxtaan ñuy waxtaan moo woo Amadou Ba ci téléphone ni ko monsieur le premier ministre mu ne ma waaw ma ne ko recevoiral waa Ngor bu leen recevoir primature de recevoir leen sa kër wax leen ni yéen ñii samay jëkkandoo ngeen waxanteeg ñoom jàmm loola am fekkeewu ma ko ba mu ne ndax fekk dama ne du ko fekkee ñu xëyati am ñu démarche defaat ay démarche ñu yóbbuwaat leen ci président de la république président waxtaan ak ñoom mooy ci jour événement yu yu métti yooyu. parce que non avant loolu gouverneur. nga baal ma damay dama tëb état boobu gouverneur woo la leen. ni leen léegi sur les six mille mètres carrés daan leen jox deux mille. ca ndaje ma am ku génn bind xale yi message ni leen ta taal leen taalaat leen dëkk bi. jox nañ ñu deux mille mais li ñu soxla li ñu soxla du loolu. kontaan ñu ko ñun li ñu bëgg mooy président recevoir. ñu taalaat. président recevoir leen. ci guddi googu bi ñu taalee. président recevoir leen waxtaan ak ñoom ni léegi nag dama bëgg ñu dàq ko ci lenn nañ ko xaaj ci digg bi jël leen 3000 mètres carrés yi bàyyi leen gendarmerie jël 3000 mètres carrés yi waxtaan ak ñoom ñu gindi li ko ba président may leen paas may leen ñaari billet Makka ñu dem. loola pap leneen li ma ci dox nag ëpp naa wax ci télé parce que il faut ñu xam ni ci terrain boobu ba tey waaw il faut ñu ñu wax ni mhm. ba loolu amee président woo ma téléphone ma ne ko président dégg naa ni am na deux hectares yu nekk foofu ci wetu stade bi mu ma grand seen loolu est-ce que mënoo ko vérifier ma ne ko ah kay ma jóg ci saasa ànd ak kenn ci waa Ngor dem seeti directeur du cadastre ngi may dégg mane ko lii de la ñu bëgg a xool mu ne ah grand sëñ ay titre privé ma ne ko président de la république mooy ndey mbili réew mi mooy laajte lii li mu yelloo dana ko def président ni jox naa leen ci neuf cent mètres carrés xanaa kon loolu jeex na ku doon laajte six mille ñu jox na neuf mille mètres carrés neuf cent mètres carrés neuf mille mètres carrés xanaa jeex na waaye nag Pape xam nga lu yàq Sénégal looy defar am ñu ko yàq ndax politique ma ni waa Ngor <coughs> lii ngeen di laaj ak di ci xuloo ak di ci ay rey ay nit war nañu mën a dépasser loolu nañ wax nu leen président dimbalee ci aéroport bi. Ah, loolu tam beneen problème la. ma ne président de la république. Mhm. frustration bii am. Mhm. dépassé na six mille mètres carrés yi. Ngor Yoof Dakar Wakaam ñëpp kontaanuñu ci gestion foncière bi je te demande solennellement nga nga ubbi benn dialogue ak ñun ñu wax la suñuy njàqare ak suñuy jaaxle mënuma yow yaa terrorisé woon nii dëkk bu nekk lañ leen jox nangam ci hectare ma ne ko man deux cent laa waxoon waaye yow tey cinquante vingt cinq la ñu wax ma ko population bi d'accord ñu loolu Pape man je suis un homme équilibré lu ma nekk nekk nekk lébu nañu d'accord ni man baat bi ñu ma jox baat Sëriñ Ndakaaru la te xam nga lu baat bi bañ fen fen mooy toj gàllaaj Sëriñ Ndakaaru man du ma fenal kenn waaye sant naa leen sant xale yi dem naa fa it jaale ji ndax am na ku de benn bakkan ëpp naa rey cim te kii gaañu xale su ndaw la xale bu jigéen bu ndaw ma jaale ci ko gis bàyyam mu ànd ak sago gëm yàlla ma dellu si waat di jaalaat di wax waa Ngor nii waxtaan wi nga xam ne sumu ngeen ko nañ ko continuer ci jàmm ak salaam ndax lu jàmm jàmm ko gën yàlla def na dégg nañu loolu am na ci ay gaañu gaañu ñu ngi leen seet di seet ñu leen mën a dimbalee daf leen jox ay ndàmpaay pour loolu wala mën nekk ci jàmm ak salaam parce que loolu sa sës pap d'accord d'accord jox leen ndàmpaay kon collectivité bi dafa am ay fonds yu muy jàppale ñenn ñi mhm. ndax collectivité bi mhm. dafa am ay fonds mhm. yu muy jàppale ñi nga xam ne ñoom gaañu gaañu wala ñenn ak yooyu waa pap xam nga man sama wàll bopp est-ce que xam nga pap man du ma laal alalu collectivité man sama alal laay laal da nga ci amul accès wala non non non dama dama ko laalul man sama staff yëpp laa dajale ni dërëmu collectivité la bu ko kenn laal lu ñëpp bokk la pap mais man laa wax sama gestion noonu laa ko defee am na kilifa gu baax ku ma woo ni ma nañ seet ñan ñoo gaañ ñu seet ñu leen di dimbale pour ñu mën a faj réunir naa leen ni leen ñi ci gaañu ci war a dem hôpital nañ leen yóbbu IASO ñu faj leen ñu ci am gaañu gaañu yoo xam ni parce demoon nañu ba ñoom ñi gaañu dañoo ragaloo génn faju ji ndax defe nañu bu faj faju ñu jàpp leen mais loolu yëpp yàlla dimbali nañ ci dox nañ ci ba am ci euh, ndox mu sedd guy guy guy guy yàlla bu ko yàlla yëkkatiwaat amiin waaye nag pap xale yi nañu bàyyi tekk ay kilifa ñu boole leen ci xeex boo xam ni kilifa du xeex kilifa day waxtaan. kilifa du xeex kilifa day waxtaan. Pape Union soviétique ak Ukraine ci guerre bombe lu ne def nañ ko mais dañ daal jékki-jékki toog waxtaan loolu amul. waaw ñu ngi guerre de. waaw dañuy guerre ñoo ci biir guerre bi dañuy toog di waxtaan. waaw que nit ñi comprendre ni. aujourd'hui bi li metti metti metti metti metti fu di toog waxtaan. kon kañ ki lay wax. ba nga meree naan la déet déet déet jar naa bàyyi xel parce que Pape nit bu meree mer noonu boromam la. kon ñiy jóg naan la moytul mer mi bàyyil mer mi kooku da ko war a déglu bu baax. te maa ngi ñaax xale lébu yi wax naa leen ko maa ngi koy waxaat ci télévision lébu yar ak teggin nañ ko xame lépp liñ ko xamee mooy faj doxandéem lébu liñ ko xamee mooy xettali doxandéem lit lébu lu koo ko xamee mooy ñëw nit jóge ca àll ba ñëw ci yow nga may ko jabar may ko fu mu dëkk ko di ko aaral alalam loolu la lébu am kon lii xale yi bëgg a def nañ ko teg ci suuf ndax xew fi nungu naa nag xale bu mer ndax mer am waaye boo meree nag ba ñu giif loola bala ngay dugg ci leen da koy xoolaat lii daal pap moom moo am ci ngor mais maa ngi sant ngor gépp nag di leen sant di leen wax ni wax dëgg yàlla amuñu pour contre benn lébu ñu contre ma benn lébu mais lébu yi buñ ma bëggee dimbali nañuy dox ci dëgg comme man ni ma koy jéemee baa bu dëgg jotee ñu may ma liberté ma wax dëgg parce que man dëgg laay wax lii ñuy xëccoo ci suuf si moo dal Ngor moo dal Yoff moo dal Wakaam président de la République maa ngi koy ñaan mu dagg suuf jox ko ñii Pape dagguñu ko parce que nii la rek de xale yi tey ñoom ñëpp am njàqare ku ci yoroon tey 60 millions sax aboo foo jënde suuf kon nañu anticiper woo nga ma fii bis ne ma est que war ngaa ñaan ndax yéen a moom <laughs> waxoon nga ma ko fi Pape. Ah, yéen a wax yéen moom kay. waaw xam nga lu tax ñaan ma ma ah. ba nga ma ko waxee fi dama ne la Pape dañu nekk ci état de droit réew bu demee ba xam nga tey boo demee Accra mhm. bala ngay am benn mètre suuf. le waa des Achanti est interpellé il valide le document comme tey ji pour faciliter le président de la République pouvait nommer un lébu qui participe à la commission de délibération seen session yooyu dee fu baaxee ñun li lii baax la lii bon la ñun lii bon la mais mënuñu toog rek di gis ñuy dagg di dagg di dagg di dagg te ñii fii ñuy dagg ñoo fi daan yóbbul seen baay ay ndogu di fi yóbbul seen baay ay ndekki di fi yóbbul seen baay ay cere mais tey ñu xëy ñu leen ne fomant ka domb leen fii tout ça lu metti na aussi même bu fekkee domaine national la mais domaine national Pape mooy lu ñëpp bokk voilà loolu tax mu war a gën a yomb tax muy domaine national moo tax mu war a gën a <laughs> man d'accord naa titre ñu ne kii titre état la état ko moom mais loo xamante ni bi tey ni la tey la noo immatriculé wala domaine national waaye bala ko jox ma sàmba jox ko ñi xam ne seen jërëjëf grand Serigne euh, xam na nga ni yow émission bi mën nañ ko topp mu gën a yàgg kon Pape jeex na ni des na parce que il faut ma bàyyi la nga nga benn message boo xam ne ñàkkul di nga ci dikk ci nu mu gën a yaatoo euh, mu concerné situation bi ak li nga xam ni itam di nga ko wax sa mbokk yi nga xam ne ñooy mbokk lébu yi Pape ginnaaw bi ma la santé bu baax <coughs> Pape Ngagne gërëmaat la ci sa professionnalisme jërëjëf réew mi li nga ci liggéeyee te di ko liggéey liggéey bu mucc ayib dans un esprit équilibré et honnête c'est ça qui fait l'art de votre métier mais dire tout ce qu'il faut man li may ñaan réew mi surtout nag ñi nga xam ni ñoo nekk ci langue politique opposition comme pouvoir ndax dans l'opposition j'ai des amis Pape Ngagne Sénégal ñëpp ay xarit lañu nañu delloo réew mi ci waxtaan waxtaan woo xam ne nag waxtaanu kenn ku ci ne la ngay wax bu ngeen fa jegee ngeen jëfe ko kenn bañ cee rocce ko waxaat le président Moustapha Niass ginnaaw bi ñu ko santé sur la confiance que le président la République à vis-à-vis de sa haute personnalité sa capacité intellectuelle benn son expérience un grand diplomate de carrière directeur de cabinet de Léopold Sédar Senghor premier ministre du Sénégal il est habilité à trouver un consensus national fort pour la République du Sénégal mais pour que mu am réussite ci loolu toutes les forces vives de la nation doivent avoir une honnêteté intellectuelle de l'accompagner et d'avoir un esprit sain dans ce dialogue voilà li nga xam ne maa beneen bi mooy président de la république ñu ngi lay dénkaat réew mi ak kilifa yi dëkk ci réew mi ñu taxaw réew mi taxaw ndax am réew kët bu naree sa ngéem kilifa yi war a jóg téye réew mi président de la république yow la yàlla teg ci bopp réew mépp boo doon génn tey ak sa cortège sëñ taxaa génn dañ koy wàcce tali bi kon yow ci yow la ñëpp xaj te xajoo ci ñoom continuer nag ci yoon wi nga dal muy yoonu dal yoonu waxtaan yoonu rafetal ak yoonu jéem lu baax loolu nag maa ngi lay sant di la gërëm bi nga xamee ni ci loolu ngay nekk beneen bi kilifa yi dëkk réew mi na nga leen seeti ñoom ñëpp gis naa la démb tuubaa seeti leen kilifa yi wax leen di xew ci réew mi ndax kilifa yëpp nekk au même pied d'égalité des informations yi xam ni ñuy téye réew mi ñun ñëpp pour parer à de pareilles situations ndax bu kenn ku ne yeddee sa njaboot kenn ku ne yedd sa doom yaakaar naa réew mi dina am jàmm waaye pap lu dul jàmm jàmm ku gën. tout à yàlla na yàlla defal jàmm. ci biir réew beneen bi mooy nguur kenn judduwul ni maa yor réew mi dangay ngay rek ba xalaat bi dab la nañu rafetal loola yorin wi rafet bëggin wi rafet mm-hmm. ndax joxante bi mën a rafet lii daal pap santaat kilifa réew mi ndax ñu ngi ñaan ñee ngi saraxe ñee ngi woote téléphone ñee ngi yeddaate te duñ ko wax ci télécom nii ma koy waxee tey fi may mujjee mooy xale réew mi am réew kët xale ko yor Pape Ngagne ñun ay mag lañu mënatuñoo lekk ginaar gu ni ñum ku ci lekk pot jeexal nga waaye réew mi bu yàqoo suñu seen alal a yàqu ndax ñoom kat bu réew mi doon tàkk duñ ko génn am réew nag bu fekkee bu tàkkee doo ko génn da ngay fexe loola ba du mm-hmm. ba du tàkk mm-hmm. kon lii pap ah ci biir loolu ma baaluwaat ak réew mi yëpp ndax mm-hmm. wax ci tele ak jamono jii dafa metti waaye lu ma fi wax rek pour réew mi nekk ci jàmm la ñëpp am jàmm kenn ku ci ne li nga xam ne moom nga yële ci réew mi jox la ko ci jàmm ak li nga xam ne moom la war a jërëjëf euh, kon mbokk yi doon ànd ak ñun euh, ci émission spéciale bi nga xam ni tey moom lañ leen jagleloon euh, te doon ci ànd ak le grand serigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne moom itam ñu koy gërëm bu baax. waaye Pape maa ngi lay sant di la ñu yaatal ngërëm li bu baax ci TFM. Mm-hmm. Mm-hmm. ak kilifa gi ak auteur bi ngeen di demee fan yi mm-hmm. parce que. dafa tàng fépp te réew mi nag dañ ko moytoo xaajale nañ bàyyi ñëpp nekk benn xaritoo gi continuer mbokk gi continuer taalibe gi gi nit ñi seq nit ñi continuer loolu moo gën a rafet ci mim réew journaliste yi ñu ngi leen di dénkaat réew mi ndax ci keneen réew mi ngeen bokk wax lu ngeen xam moytu lu ngeen xamul wax lu rafet te demandé waat encore Pape man ñaanuma président de la république de parce que du compétence am. juge yi ngay wax. waaw les juges d'instruction. c'est important. avec qui nous avons beaucoup de respect et de considération. Mm-hmm. nous vous respectons mais nous vous demandons. tous les journalistes aujourd'hui qui sont en train de subir su amee ay moyens de relaxation ou bien des moyens de de conservation sur une liberté provisoire nañ leen bàyyi ñu génn ci kaso yi. très bien ndax foofu du seen place. xale yi nga xam ne dañuy jàng ñu jàpp leen nañ leen bàyyi. maitre yi nga xamante dañ leen bàyyi dañ leen jàpp aki i professeur te ñoom ils exprimaient des opinions politiques ngir yàlla juge d'instruction yi nañu woyofal ñooñu bàyyi leen bu ñu leen soxlaa woo bis ndax ils sont régulièrement domiciliés au Sénégal. vraiment c'est que c'est ce que je voulais dire. merci beaucoup Pape en remerciant aussi toute euh, euh, ñu am mbégte bu yaatu vraiment ci émission bi nga xam ne seq nañ ko ak yow. <clears throat> Euh, te loolu yaakaar naa ñiy seetaan itam dinañ ci dinaa ci bari ay moroom waaw dëgg la parce que dégg nañu koo xam ni li mu yëg la wax. Mhm. li mu xalaat la wax. Mhm. te jàpp nañu ni ci dëgg la ko teg. Mhm. te jàpp nañ ci liy defar la ko teg. loolu lañ la mën a loolu lañ mën a njort. ci li nga xam ni moom mooy sa ay kaddu. ñu lay remercier bu bu baax euh, ci wuy si bi nga xam ni wuy si nga ñu ko te li nga wax mooy dëgg itam jamono la boo xam ni euh, kilifa génn yëkkati kàddu yu mel ni yombul uh-huh. mais ku la dégg dina xam ni ci xel nga ko teg waaye itam ci fit nga ko teg ci ko teg ci fayda nga ko teg loolu itam ñu ngi koy apprécier bu baax euh, kon mbokk yi ñu leen di jox rendez-vous incha allah ci beneen jotaay bu ci yàlla ndey jërë ngeen jëf merci